wa radiyallahu an saaxibi alxatmi almuhammadi rabbaani abil abbaas mawlaana ahmed tijaani radiyallahu taala an wa an saairi alxulafa ajmain mbokki jullit yi ñuy seetaan ànd ak di ñu déglu ci gox yu fasantikoo yi ci àddina bi yépp ñu ngi leen di nuyu ci baat bi ñu yàlla boole mu di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu <clears throat> ñu ngi nuyu bu baax mboolem ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew ñi ci diaspora bi yëpp fu ñu waay mën a nekk ci àddina bi di ñu seetaan ñu ngi lay nuyu dinañ ci tudd tey rek ñu nekk ca Brésil woote barki démb duñ ci tudd kenn waaye woote nañ di nuyoo ak di rafetlu waxtaan yi noonu ñu ko defee la ko ñëpp di defee kon mboolem ku nekk ci diaspora bi rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di ñaan yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem lii ñuy def yàlla buñ ci gis suñu bopp yal nay jëm yàlla ji kott tax te yàlla boole ñu fayal ñu boppam jaare ko nag ci suñuy kilifa yi nga xam ne ñoom lañu am ñu ngi nuyu mbooleem kilifa diine ji xalif généraux yi ci réew mi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay wi ñu am ci ñun am ko ca yàlla ñu ngi leen ci nuyu di leen jiital di jiital ci nuyoo boobule suñu kilifa suñu sang suñu sëriñ suñu xarit suñu soppe di alxaaji Cerno Bachiru Muntaqa Taha Cheikh Alhaaj Omar xalif général omarien ca Louga ñu teg ko ci loxoom mu jottalil ñu ko mbooleem xulafaa yi ci réew mi yëpp ci lay gën a mat ci lay gën a rafet ci lay gën a jekk bu ñu nuyoo xalifa yëpp nag nuyu ne ñëpp ci réew mi di massawu ànd ak di ndokkeel ñi nga xam ne inondation yi yegg na seen kër ñu ngi leen ciy massawu te xam ne coono la métti na lool nag ñu jiital ci suñu bopp ndax ci la bokk mu di Serigne Souleymane sàmb bi ngeen xam moom it inondation bi daa yegg këram tabarkàlla mu sonn ci lool bagaasam yu bari yàqu ah waaye ñu ngi koy masaw moom njabootam aki i soppeem ak xaritam bokk na ca Abdoulaye Kandji bu suñu maam borom tuuba ak. sëñ jenn Sidi jenn fa tabaarakallaahu bu maam borom Touba nga xam ne ku xam sëriñ Souleymane Samb xam kook ñoom ak sëriñ alxaaji imaam Mouhamad Lamine Sakho ak sëriñ Saaliwu Mbeng ñoom ñëpp ñu ngi leen di massawu li dal suñu soppe boobu di sëriñ Souleymane Samb mu di ndox mi nga xam ne moo avir dugg këram ak mbooleem ñi nga xam ne li ko dal dal na leen ñu ngi leen di masaw réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk benn bopp la su amee lu laal kenn rek laal na ñi ci des ñépp la yonent bi sallallahu wax ci xadis ne jullit ñëpp dañu mel ni benn benn miir boo roccee benn birig rek miir yëpp miir ba daanu mu ne jullit ñëpp noonu la ñu mel am beneen xadis bu mu wax ne jullit ñëpp dañu mel ni benn jëmm mu ne jëmm ji su ba su su loxo di metti faw lu ci yooni bët ba nelaw su bët di metti lu ci yooni loxo waaye lu laal lenn ci jëmm ji la laal na jëmm ji yépp jullit ñëpp nag noonu lañ mel kal ya yashuddu baaduha baadan nit ñi nag booy waxte te waxoo arab dañuy foog ne li ngay wax lee bëgg lu peen la rek waaye dafa gën a gaaw rek li nga war a wax ci arab nga wax ko ci olof li jóob njaga daan wax ne ne wax arab wax olof da ngay tardé nit ñi waxal olof rek dem ndax gannaaw ñëpp dégg nañ olof waaw kal bunyaani yashuddu baaduha baadan loolu la yonent bi wax salaay sallam kon ñu ngi leen di masawu ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu booy seetaan télé bi da ngay xam ne sonn nañu sonn nañu koo xam ne balaa ngaa lekk da ngaa toog ci kaw taabal wala taabal ba nga waroon a teg di ca lekk ca ngay faf toog wala nga taxaw ca wala nga tëdd ca métti na métti na kon ñu ngi ñaan état ñoom itam ñu gën leen a gëstu gëstu bi état bi ñuy ñaani état dëgg la jox nit ki ceeb baax na jox ko diwlin baax na jox ko suukar baax na waaye fexe ba dootul inondé moo ko gën ndax boo ko joxee ceeb tey doo ko ko jox suba boo ko ko joxee ren doo ko ko jox déwén mais boo fexee ba dootul inondé noppalu na noppalu nga loolu ñu ngi koy ñaan état ñu ngi koy ñaan état ñun euh, du ñu wañaar loxol kenn ndax mënuñu ko waaye sañ na ñu ñaan nag xanaa ci réew mi lañ bokk li suñu sëriñ ba daan wax Cheikh El Hadj Aziz hmm? ci réew mi lañ bokk sañ nañu ñaan kon ñu ngi ñaan le chef de l' état euh, ñu gën a taxawu askan wi ci régler dëkk bi ñu gën a taxawuwaat askan wi ci régler dëkk bi bu tawee kenn du am foo jaar yoon yëpp yàqu na yoon yëpp dog na ay kàmb kese kese kese moo nekk ci dëkk bi ma ne nag ndem ndakaaru bii capital di xolu senegaal moo mel nii kon feneen waxu la mel waxul jarul tudd te kuy seetaan télévision yi di nga xam ne euh, région yi sax ñoo ñu gën a sonn waaw ñoo gën a sonn te yii yàgg naa ko wax lu mën a jeex Sénégal la lu fi mën a jeex la lu fi war a jeex la na fi jeex lenn lu ne ka ko mën nañ ko ko jox waaye doo fekkub tailleur ñaw la mën nga jox ko godoron du dem doo fekk mécanicien boo xam ne réparé oto la mën nga yëkkati ku yi di ko ko jox lu nekk nañ ko jox ka ko mën wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu ba di leen contrôler ku ci deful lu baax ñu sanctionné la ndax alalu askan wi duñ ko jël teg ko ci seen loxo ñu war a defar lu baax defar lu bon ñu di leen seetaan loolu warul nekk waaw képp koo xam ne teg nañ alalu askan wi ci sa loxo ne la defaral lii nga war ko defar mu nekk mu war a durer vingt ans trente ans cinquante ans du durer sax deux ans yàqu loolu tamit yàq alalu askan wi la benn noppi nag maara de Italie hmm? waaye réew mi nit ñi sonn nañ nit sonn nañ torop torop torop torop waaw nit ñi sonn nañ au passage maa ngi koy nuyu monsieur le maire Alioune Sall ak euh, Cheikh Mbacke di ko sant waxtaan naa ceeg moom lu yaatoo yaatoo yaatoo waaw di santit monsieur le maire Moussa Sy waaw fa tabaarakallaahu samedi ni tey bi mbënd mi amee une heure matin jokkoon na ak moom téléphone mu ngi woon kër Souleymane Souleymane Samb bi ak la aju ca Parcelles Assainies yëpp di def tournée ci ñi ndox mi nangu seen kër yi mais maire yi loolu la ñu war a jëriñ buñ la falee pour askan wi la lu dal askan wi jógal loo ci mën nga def ko parce que nag li ma monsieur le maire Aliou Sall wax euh, euh, inondation newul ci loxo maire yi parce que nit ñi tamit foog ñu xam kenn ku ne lim yor. ndekete ONAS ñoo yore affaire ndox mi parce que dama ko doon wax eh, pompe bii ci géejawaay géej fii day fees kër imaam Lamine Diop sax dafa inondé woon pompe bi duñ ko taal ma ne ko lu tax duñ taal pompe bi buy taw c'est ça le problème pompe baa ngi fi ñu ne fokk mu sebet pour ñu door a taal pompe bi ban njëriñ la am ñu ne loolu mooy règle ma ne loolu du règle bu dee règle nañ xool ban façon règle benn façon règlement la pomp bu ñu war a taal nañ ko taal diiru buy taw ndox mi di évacuer wu di dem mais doo bàyyi ba ndox mi dugg ci biir kër jàmbur yi ngay door a taal pompe médecin après la mort benn amul ban njëriñ mais réew mi tamit foog ñu seetaat ko bi ma ci waxtaanee ak monsieur le maire Alioune Sall moom ma xamal lii yëpp mu ne ma moom mënu ci dara parce que newul ci responsabilité am su fekkoon ne dañ bàyyi yenn yi ci responsabilité maire yi mairie dina jël engagement ci lu bari waaye mënu ko parce que ONAS moo ko mu ne même gardien yi nekk ci poste yooyu ONAS moo leen fay yóbbu mu ne souvent gardien yi ñooy ñoo fa dul ne pour taal pompe bi suñ amoon ñaar wala ñetti gardien yu fay nekk kii yendu kii fanaan kii gontu mais bu pompe bi amee problème mu signalé ko mais daal dañuy foyee askan wi nag dañuy foyee askan wi te nit responsabilité bu ko yàlla tegee ci sa loxo da koy taxaw na nga ko war a taxawoo gis nga kii ñuy waxtaanee Cheikh Seydi Ahmad Tidiane gis ngeen li ma wax ci taxawu askan ni mu ci meloon parce que responsabilité dafa rëy ca kanamu yàlla dafa rëy dafa rëy nañ ci bàyyi xel euh, chef d'état mënut a def lépp fokk mu am ñi koy jàppale ñi koy jàppale na bi nañ nañ xam ne buñ saboté le chef de l'État ñoom seen bopp lañ saboté buñ ko dimbalee seen bopp lañ dimbale parce que nit mënul débloquer ay milliards teg ko ci sa loxo ngay wax nit ñi léeboon luppeen fii la jaar jaar fale ah mënoo ñu wax dara ay milliards sept cent et quelques milliards ñu teg ko ci sa loxo nga naan fii defoon naa ko nii la def ak réchauffement climatique réchauffement climatique dañ koy préparer zahara al fil ardi bi barri wal bahri bi maa kasabat aydi naas état day prévoir lu ñëwagul beneen bi ci des it ma koy ñaan askan wi bul def foo gis yi jënd am na foo xam ne kenn waru faa tabax kenn waru faa dëkk il faut dire la vérité parce que nit ñi tamit anarchie bi dafa métti amuñu respect amuñu yar amuñu teggin lu leen neex la ñuy def da ngay xool sax suñ cité yi da ngay gis ko tabax génnee balcon ci biti balcon yu bari tojoon nañ leen ñu defaat ko mais nit ñi ñoo yarawut ne foog ñu wax dëgg senegal nit ñi yarawuñ du fu la neex nga tabax dafa am zone yoo xam ne dafay am ndox boo fa tabaxee yaa yaa yaa dëkk ci ndox doo fekk xur woo xam ne xur wu wow la nga tabax ko mais bu bu, bu nawet amee nga toog nag naan ñu président nañoo dimbalee ñu est-ce que dimbale nga sa bopp ala avant président di la dimbale parce que yaa fekk fu ñu war dëkk nga dëkk fa te loolu it responsabilité état la urbanisme lu muy jëriñ cadastre lu muy jëriñ yeneen eh, instance yooyu yëpp lu ñuy jëriñ ku tabax foo war tabax nañ la fa jële wan la ne fii yoonu ndox la mais dañuy maslaa maslaa raay raayal maslaa maslaa du noonu maslaa yooyu nag moo indi lii waaw ah, maslaa yooyu yu bari yooyu yëpp moo indi lii ñu baal ma àq dañ bokk ci askan wi te li dal askan wi ñor nañu moo tax ñu ci sànni suñu grain de sel waaye xëy na ñi ko war am na ñu ma ko gën a jekk pour wax ko am na ñu ma gën a porté pour wax ko waaye nag dama bokk ci askan wi te am na ñoo xam ne donte ñetti nit la sax ñu ngi may déglu. kon ñu ngi ñu ngi ñaan état bi ñu dimbale nit ñi ñu def ay canalisation yu baax réew boo amul canalisation du dem man dey dama jaaxle ca Senghor président Senghor président Abdou juuf président Abdoulaye Wade ba ci bër président Macky Sall ñaata moto pompe lañ jënd damay laaj rek damay laaj ñaata moto pomp lañ jënd moto pomp réglé wu ko mais nit ñi nañ waxanteeg état bi dëgg moto pompe réglé wu ko moto pomp bu tàkkee trois mois paan année bi ci topp dootul am njëriñ nga jëndiwaat beneen moto pompe ca Senghor Abdou Diouf laay Wade ba ci Macky Sall bu ñu dajale woon liñ jëndee ay moto pomp defar na Sénégal moto pomp ak carburant ba koy taal ak ya ca aju mais at bu jot nga jënd moto pompe defal canalisation yoo xam ne doo dootoo soxla moto pompe te balaa may dee ñu ne ndox ndox mi nañ ko dem mu yóbbu mu dem géej ndoxu taw du dem géej ndoxu foos du dem géej yooyu ay caaxaan la rek canalisation nañ ko defar ci dëkk bi nañ ko def ci réew mi encore une fois Dakar du Sénégal Sénégal quatorze régions la quatorze régions yëpp àq bi ndakaaroo am lañ am ñu baal ma àq nag man de damaa jaaxle damaa jaaxle de damaa jaaxle moto pompe moto pompe moto pompe may na téeméeri moto pompe lu muy jëriñ mais defar ko une bonne fois ah waaye man waxante man de damaa jaaxle moto pomp at bu jot ca Senghor ba tey. nañ waxal dëgg nañ def canalisation yu mucc ayib am na réew yu ñu dàq taw fopp may wax nag ñu wane Kaaba ga ne inondation am na fa wane fi Kaaba ga inondation Kaaba ga ak inondation ndakaaru gii du benn de foofu buy taw naka jekk Kaaba gi ci xur la nekk bi may waxtaan ci Makkatul Mukarram wax naa ko fi noonu la ko yàlla bëggee Kaaba gi ci xur la nekk parce que mooy centre xolu àdduna noonu la ko yàlla bëggee may ndox du fa tag de buy taw cinq minutes dootoo gis ndox benn yoon la kaaba gi bu ñu kenn sëlëm maa ko gis ci télévision yi ñu koy wane c'est faux bu ñu kenn sëlëm bu ñu kenn sëlëm kaaba gi benn yoon la mos a inondé inondation mooy tuufaan te boobu yàlla bëggoon écraser àddina bi écraser waale kaaba gi bàyyi fa fondement yi moo tax wa iz yarfau ibrahimul qawaidu min al bayti wa ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim looloo ko indi ba tuufaan écrasé kaaba gi bàyyi fa fondement yi kese yàlla yónni maam ibrahima moo tax mu ne wa fàttalekul is jamono ba nga xamee ne yarfau mu ngay yëkkatiwaat ibrahimu ibrahima alqawaida koju kaaba ga wa ismailu ak doomam ba ñuy wax ismail njëkk a wax nag rabbana borom suñu taqabbal yal na nga nangu lanaa ñeel ñu ci lii ñuy def ndax innaka naka yow anta yow assami yaay déggaakoon bi al alim yaay xamaakoon bi boo ko firee yaa yaay xamaakoon bi yaay déggaakoon bi ndax ku xam moo la xamal ku dégg moo la dégtal lay firi nit ñi nañ bàyyiwaat xel euh, polo politi politique baax na waaye diaboliser nag ay mbir baaxut waaw Sénégal inondé na fu bari ci àddina bi inondé na te yii inondé yooyu ay ariyaan laag ay ngelaw yoo xam ne quotidiennement day am chaque année ñoom dañ koy xaar di préparer di ko xaar ñu dofuñu kat ci àddina bi lañ nekk ah nañ bàyyi caaxaan te liggéey réew mi ñooñu ay aria nag ay ay nuñ koy waxee ci ay chicol chicolone lay doon ak yu kenn xamut xeetu ngelaw la yu am tur sax ñoom dañ ko bañ bi amal ko tur chaque année dañ koy xaar di préparer ni ngay xaaree fête nationale di évacuer seen i bagage di daaj ay carton waaye ñun ñu dëkk ci àddina bi nag nga bëgg wax ne àddina bi yëpp a inondé c'est faux même bu àddina bi inondé woon bokkuma ci du man kenn bokkuma cee ko gën waaw du man kenn bokkuma ci moo ko Sénégal nañ fexe di di di nekk bokkuma ci soo waxee ñu naan Ablaye président Wade nii la fi newoon moo tax ñu jëlee ko fi ba fi Abdou Diouf nekkee it euh, président Wade bi mu fi nekkee ay nitam loolu lañ doon wax waaw waaw waaw Abdou Diouf nii la fi newoon moo tax ñu jëlee woon fi Abdou Diouf teg fi euh, euh, président wadd ñii tamit balaa ñoo dee rek ñu naan président Wade mu nii dafa moo tax ñu jëlee fi président Wade teg fi président Sall pour ñu régler besoin askan wi solution lañ soxla soxla wu ñu ay wax saa suffit dafa doy sëkk wax ji mbepp mbepp occuper télévision yi occuper média yi occuper lépp mbepp mbepp mbepp mbepp soxla wu ñu wax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 fan lay taal lu ko ceeb ba di jëriñ lu ko déwlin ja di jëriñ xanaa déwlin ja day tëmb ca ndox ma faf féetee kaw ndax déwlin moom du du suux ca kaw lay féete mais il faut nañ bàyyi caaxaan nañu liggéey dëkk bii lu tax inondation dootu fi am loolu la ñu soxla waaye soxlawuñu ceeb soxlawuñu déwlin soxlawuñu suukar soxlawuñu meew lu sowee suñ bakkan yi lañ soxla mën naa nekk loolu lañ doon jooy moom la ñuy jooy ba tey moo tax ñu jëlee fi président Wade teg fi président Sall pour mu régler besoin askan wi pour mu régler li naqari askan wi waaye lan la wala dañ am beneen président bu dul sàll ne ñu ko wax ko c'est le président Sall qui est là c'est lui le chef de l'État gardien de la constitution yilif ñépp kon fokk ñu wax ak moom fokk ñu wax ak moom danañ ko wax nag ci yar ak ci teggin ndax moo ñu yilif mooy suñ kilifa ci yar lañ ko koy waxee ak ci teggin ak ñaan ko ko ci njekk tem xool ñi muy tànn di teg alalu réew mi ci seen loxo na leen xool loolu rek mooy problème bi mën na dégager budget cinquante milliards dix milliards mais ci yenn loxo la koy teg c'est ça le problème ci yenn loxo la koy teg loxo yoo xam ne dana yegg ca fa mu war a dem lañ ca war a liggéey daañ ko ca liggéey est-ce que dana yegg ci askan wi bu paree mu def comptabilité rendre compte nit ñi trans transparence bu amul dara du baax yàlla nañu yàlla dolli sutura ñu baal ma nag damaa bari wax rek dañ koy ñaan nag offensé wu ma ko defuma ko faas ndax mënuma ko dama ko mënul sax waaye nag ci réew mi laa bokk te moo ma yilif te sañ naa koo ñaan lim lim moom yëpp jox naa ko ko son excellence gardien de la constitution le président de la république monsieur makki Sall loolu moom lim moom yëpp jox naa ko ko na fexe li ma moom mu jox ma ko li askan wi moom mu jox leen ko lii rekk lañ soxna mënuñ ko fee jële xalaatuñu ko yàllaa ko fi teg fekk jeexalut du dem waaye na ko wóor ne day jeexal de toujours ma wax ko ana Senghor ana Abdou Diouf ana Abdoulaye Wade moom mii it dana yegg ci ana Macky sàll luy jeex jarul jënde ak lu dul jeex nañ ci bàyyi xel ñi nga xam ne fal na leen ñu di ay ministre nañ wàcc ci terrain bi te xam ne du ñu ay buur ministre mooy jaamu askan wi rek ñu teg la ne la yaay jaamu ñëpp waaye du yaay buur yi ñëpp ñu xàmmee danga nga war a jaamu askan wi nekk ci seeni soxla guddi ak bëccëg suba ak ngoon te am jàmm te doon nit ku dal nag ndax ku jiite ñëpp xuloo waru xuloo waru ku jiite ñépp xuloo waru la waaw ah, su ko defee kon ñu baal ma nag ma nuyu jukki ci biir réew mi kenn koo xam ni wax dëgg yàlla dafa def li ñuy wax geste noble la def te kilifa la bokk ci réew mi di nit ku baax ma euh, keroog laa koy door a teg bët face à toog mu toog ma toog waaye daan naa ko gis rek ci télé bi moom it mu di ma gis wax dëgg yàlla gest encouragé ñu la def jaare ko ci madam njaay muy soxnaas Alaaji Ndiaye 2STV directeur PDG directeur gén président directeur général 2STV soxna Marème Ndiaye xàjjatu Marème Ndiaye ci moom la jaar moom it mu jaar ca Chérif Maamin sama mos ak tafsir Abdourahman Gaye ñu jox ko sama numéro mu woo kooku mooy kan moo di le professeur faatu Sow Sarr sociologue mu woo ma kàddu yu rafet ne ma yow dama lay seetaan lu baree baree bari nga dimbale ma lu baree bari ma ne ko ëpp naa wax professeur yow professeur nga yow yaay sama professeur yow kañ yaa may dimbali waaye man mënuma laa dimbali mu ne ma danga ma dimbale ci lu bari surtout waxtaan bi ngay wax ci mag ñi mu ne ni ngay indee histoire ñun ñiy jàngale université noonu lañ bëgg ku koy indee histoire xam nga loolu encouragement la mu ne ma ndax ñun boo indee boo indee histoire balaa ñu ko valider da ngay indi ay preuve indi ay tegtal indi ay preuve pour ñu door a valider histoire bi mu ne ma te yow noonu ngay def wax ma wax yu rafet daal di ne ma dama ñëwoon uniquement nag pour yëkkati sama àllarba jox la ndax ku lay jàngal war nga koo jox àllarba eh, jox ma benn enveloppe dem ñibbi du ma wax nag ñaata ci ne ndax Sidi Kunte laay bañ mu catu waaw ndax Sidi Kunta gémmiñ nga daa rëy moom laay bañ mu catuma Sidi Maxtaar Kunta tabarkàlla ah bi ma daajee enveloppe bi gannaaw bi mu ñibbee eh, dama julli timis ba pare daajee enveloppe bi gis muy chèque ma ne ah li Abdou Latif Guèye daan wax keroog sama dënn dafa rëcc Abdou Latif Guèye dama ko ma samay xaalis ndeysaan mu dem ba këram daajee enveloppe bi xool ko woo ma téléphone doyit mu taal otoom ñëwaat ne ma man dañ ma du may moo tax ku ma may damay tiit est-ce que du dangaa juum en parce que dama ko daan jox ay enveloppe maanaam ñi bëgg a liggéey ak yooyu xam nga nit ñi intervention ak yooyu mu ma est-ce que du enveloppe intervention nga ma doon jox juum jox ma enveloppe buñ la jox ma ne ko noonu enveloppe bi maa la ko jox ndax dama xam li ngay daj politicien nga dama lay dimbale may itam ni may dimbalee laa lay dimbale mu ne ma man buñ ma mayee damay tiit ndax man kenn mu ma ba di ma may. waaye moom it professeur keroog bi ma joxee enveloppe boobu ma dajji ko gis chèque bi bi ma liiree chèque bi ma ne soxna si liiral ma ndax maa mënta liir wa li may wax yàlla xam na ko de soxna saa ngi may dégg mu ngi may seetaan ma ne ko liiral ma maa mënta liir wala qu'est-ce que c'est passé mu ne ma li nga wax du loolu de ëpp na ko de ma tiye sama gémmiñ eh ndaw si moom yàlla na ko baax na ba mu ëpp di ñëw gi rek doy na téléphone bi rek doy na nga yëkkati sa alal loolu encouragement la ci man waaw kon maa ngi koy sant le professeur le professeur euh, Fatou Sow Sarr sociologue bu université maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax mu ne nit bu la defalee teraanga na nga ko ni jazak jazakallaahu xayran boo ko ko waxee fay nga ko bis kon jazakillaahu xayran sama sëriñ nag Maolana Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz da baax borom anniversaire bii di waaje ñëw le 14 mooy wax moo daan wax ne su la nit defalee teraanga nanga nga ko waxi mbokkam wax ko say xarit wax ko say am di jàmm soo wéetee ñaanal ko yàlla mu ne ndax day yokk cofeel borom daara ji sëriñ Mansour sa turandoo moo daan wax ni ba sëñ kër si moo daan wax ne baa doolo rek mooy def lu ñu la defal nga yooree lex ne daa ko yeyoo waaw mu ne baa doolo rek ko koy def kon le professeur ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yal na yàlla defal la lu kowe sa njort ci lépp lu mën a doon ak loxo yi mu jaar ba yegg si ci man madame Ndiaye El Hadj Ndiaye Chérif Mamine Tafsir Abdourahmane Gueye man lam yashkuri naa sa lam yashkuri la waaw ah, yonent bee ko wax nee na boo santul xéewal yi fi mu jaar ba yegg si ci yow nee na boo fa boo leen fa bàyyee sant yàlla yàlla rejeté ko delloo la ko kon ma jubbanti benn aaya bu ma fi waxoon moom itam bi ma koy seetaanaan ma yëg ne dama ko gaawtu rek aaye bu may faral di wax la sax ñépp xam nañ ko waaye alxuraan boo ci juumee noo mën a toll rectifier ko rek waaw lisaanu lazi yulxiduuna ilayhi bi laa tëboon bi ma koy seetaan waaw lisaanu lazi yulxiduuna dama dem ca la ca topp bàyyi ilayhi bi bi ma koy seetaanaat laa ko gis waaw waaye lisaanu lazi yulxiduuna ilayhi ajamiyun wa haada lisaanun arabiyun mubiin loolu la alxuraan bind moom man maa waxutoon lu kenn xam waaye waaye alxuraan moom loolu la bind waaw lisaanu allazi yulxiduuna ilayhi ajamiyun wa haada lisaanun arabiyun mubiin yonent bi yàlla doon dindil tuuma bi alxuraan di wàcc magu màkka yi mënatuñ koo muñ fomante benn affaire rek ne benn waay bu nekk ci bunt ci gannaaw màkka yonent bi day yoot bu guddee dem fa waa ji jàng xëyee di ko tari <laughs> lu ne wax nañ ko ne wax nañ ko ko moo tax it lu ñu wax keneen nit ñu rek day métti nag waaye fokk ñu muñ waaw yàlla moo métti waaw lu ne ko daj ci sama bopp rek laa koy xool seede na ko je fatige fatigué et tellement fatigué et trop fatigué mais nag ku xool Cheikh Oumar ci jaasiya nga muñ ko ku xool maam alaaji Malick Cheikhul Haaji Malick ca tubaab ya nga muñ ko ku xool boroom màggal gii di waaj a ñëw Cheikhul Xadim muñ ko waaw mag ñëpp ku leen xool rek muñ ko ku xool Cheikh naa Cheikh Saad bu muñ ko ku xool maam Bou dëkkul Sénégal di ñoom marocain lañ kunta kunta yi seen origine marocain lañ Sidi maxtar kunta bu mag ba Maroc la dëkkoon moom lañ tuddee Sidi Maxtaar mii sama mos mooy seen mooy cosaanal kunti yu xaatimu xaatimu kunti yu boobu mu salasul kunti yu boobu ngay dégg Sidi Maxtaar bu mag ba moo ko moo ko defar ji doñ doñi ba yegg si njaasaan gi seexal bekaay yegg si njaasaan sanc ko waaw maam borom Touba sept ans Mauritanie sept ans Gabon dix ans résidence surveillée Touba kenn sañu koo seet ci jaaroo ci tubaab bi mu jox la ordre ak donte moo la jur hmm? lu ko yàlla fayee te ay mbokkam rek a ko boole de lañ ko boolee du dëgg sëriñ bi daa bëgg taal jihaad histoire bind na ñëpp ña ko doon boole tey ku xam seen i sët surtout ku ne mbàkkee rek ñu fóon sa loxo sukk ci suuf tey ña ko doon boole ku xam seen i sët kenn xamut seeni i sët torox nañ bu yàgg ànd ak seen sët ya waaw fokk ñu muñ nag man ñi gën a sonn Sénégal ci laa bokk waaw yàlla xam na ko damay bañ rek nit ñi. waxati yu kenn xamul waaye rek buñ xoolaloon yàlla rek du baax waaw yàlla xam na ko yàlla xam na ko ndax tamit nag eh, liggéeyal yàlla ba pare nag nag nag rek mu ngi noonu mu ngi noonu tabarkàlla tabarkàlla métti na daal alaaji ma lay métti na waaye ko xool cheikh al islam alaaji ibrahim bàyyi moom it li mu daj ci digganteem ak waa Sénégal ci digganteem ak ba fële ji Nigéria am fa tey loo kenn amut hmm? Ousmane Dame Fodji nigérien la amoon nekkoon fa di buur di sëriñ di lépp waaye bi bàyyi ñëwee folli na ko daanaka kenn du ko tudd te Cheikh xajo Hadj Omar Fouti yu na doomam ponkal la woon demoon nañ ba boo ko tuddee sa ajo fajo yeggoon na ci ci lasraar boo koy tudd sa ajo fajo nii nga xam ne bu la yax jamee nga ne Xaalid ibnu Walid yax bi dem yooyu gars yi dañ koy bi naan bidaa bidaa ku ci yax bëgg a rey di nga ne Xaalid ibnu Walid de waxuma sax Xaalid ibnu Walid Sénégal gi am nañu ci yàlla may Penda ca Ngawore bu la yax jamee nga ne Penda Sarr ca ngawre rek mu dëj Penda Sarr ca Ngawore bu la yax jamee nga ne Penda Sarr ca Ngawore rek mu dëj soxlawul naan ndox yàllaa ko ci mayoon ba boo tuddee turam sax bu la yàq jamee mu dem Xaalid ibnu Walid yonent bee ko ko may noon turam yàlla barkeel na ko ba loo ci bëgg yàlla defal la ko am na ci saxaaba boo xam ne poson la daan jël pour wane ne dëgg la bu nee Xaalid ibnu Walid naan ko dara du ko ci fekk te Xaalid saxaaba yonent bi la <laughs> du taxul Xaalid di yàlla wala di yonent déedéet am na aaya bu ma noon cocc keroog fàtte ko rahmatullahi wa barakaatuhu aleykum ahlal bayti yàllaa ko wax di waa kër yonent bi tuuti wuñ de surafaa yi kenn tuuti wu ci shérif yëpp laa wax nag kenn tuuti wu ci te shérif buñ ci doon lu la neex defal àjjanaay sa kër àddina nag mën nga fi am tolof tolof yàlla di la puniré ñàkk dépense di la puniré yeneen ak yeneen waaye doo dem safara mukk benn shérif buy dem safara amut rahmatullahi aleykum rahmatullahi wa barakaatuhu aleykum ahlal bayti innahu innahu hamidun majid ah damay bañ a damay bañ a tëggu rek shérif yi kenn ëpp leen doole ci àddina ala nabi ihtarimu sa sama sëriñ a ko wax xurmatuhum wa azimuhu aaraaduhum aaraaduhum wa sallimu lil mustafa jaddihim jaddihimi ala nabi ihtarimu xurmatuhum wa azimuhu aaraaduhum wa sallimu lil Mustafa jaddihimi ala nabi ihtarimu hurmatuhum wa azimu a'raduhum wa sallimu li Mustafa jaddihimi ala nabi ihtarimu hurmatahum wa azimu أعرادهم وسلموا للمستوى جدهم حمدا لمن قد قصنا تفضلا شفيعنا محمدا دليلنا إلى الصراط الأقوم على النبي اخترموا غرمتهم وعظموا أعرادهم وسلموا للمصطفى جدهم محمد ملجأنا عمدتنا قدوتنا يوم الجزاء اخرنا بالعباد فارحمي يا قوم عظمهم غدا إذا أرحتم من العذاب تسلموا من هول يوم عيومي tabaarakallaahu kii kii moo xam shérif yi ndax lan huwa minhum hmm. Cheikh Alhaji Abdul Aziz mi moo xam surafaa yi ndax ca la bokk bokk gam ca bokk tax mu xam leen moo tax orma bi mu leen joxoon ah waxuma ne am na ñu leen ko jox fi mu ne de waaye gisaguma ko de man kenn na koy ci xaw a dab dabal mooy Cerno Basiiru Muntaga daa Cheikh Oumar man nag lu ma xam rek laay wax nag lu ma xam laay wax de waxuma ne keneen defu ko de waaye ñi ma xam ñi daan jëfee ni Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz daan jëfee digganteem ak surafa yi kenn laa ci yëg te gis ko te xam ko muy Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Oumar xamoo ci ñàkk cër bi ñu ñàkk ci jox euh, waa kër yonent bi cër moo indi catastrophe yi yëpp dinaa def waxtaan spécial ci shérif yi dañ xam ne nekk shérif du caaxaan. le fils de chef de l'État rek du caaxaan fu muy dem tey garde du corps yi topp ko c'est quoi c'est le fils du chef d'État loolu képp la di amul benn fonction doomu président bi buy jàngi école bi muy jàngee auteur ba fa lay taxaw di ko xaar avec un garde du corps même deux gardes du corps ak chauffeur te oto bi di fay day ralentir ba xale bi wàcc ñu escorté ko dugal ko mu dem mu mu ñibbi kër baayam mook sama doom yi ñoo bokkoon fu ñuy jànge man li may wax dama ko xam bon mook sama doom yee bokkoon fu ñuy jànge oto bi day ralentir ñaari garde du corps ak chauffeur xaar ko ba mu wàcc ñu dugal ko ci oto bi yóbbu bu ñëwee it ñoo koy indi c'est quoi c'est le c'est la fille di chef de l'État ou, ou bien c'est le fils du chef de l'État ah ñun ñoo organiser ba loolu mën a nekk wa kayfa rabbuna zul jalali wal kiram wa kayfa zul izzati wal mi nga xam ne moo ne wa laqad karam naa bani aadama nu ñu ne déet mu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ñu ne déet mu ne yow rasulullahi yow laa joxoñ nag yow wa innaka la ala xuluqin azimin walaw annahum id dalamuu anfusahum jaauuka fa staxfaru llaha wa staxfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahiman yàlla joxoñ yonent bi walaw laa fadlullahi alayka wa rahmatuhu la tabaatum cheytaan wa kaana fadlullahi alayka azima ida jaa nasrullahi walfatxu wa raayta annaas yëpp mu daaj ko yonent bi ak yeneen i aaya yoo xam ne mu ngi ci alxuraan lépp mu daaj ko yonent bi yegg ba ci li ma wax nii nag rahmatullahi wa barakaatuhu aleykum ahlal bayti ku ko bañ bul jàng alxuraan ñu ne ko lu tax mu ne innahu hamidun majid maa sant sama bopp maa gërëm sama bopp man yàlla maa la defal li loolu yow rasulullah ku génnee ci yow rek danaa ko setal wecc ci bàkkaar te danaa def yërmande ci moom tey ak ëllëg laay wax de rahmatullahi wa barakaatuhu aleykum ahlal bayti ñu ne ko lu tax mu ne innahu xamidun majid dañ bàyyi caaxaan suufeel bi ñu suufeel surafaa yi moo indi catastrophe yii ci àddina bi foo dem ci àddina bi nag dañ leen sous-estimer actuellement mais yàllaa bëgg waxuma nag surafaaw yi nañ def lu leen neex parce que tamit ki yàlla tànn da nga war a wane une bonne exemple shérif yi tamit nañ fexe nekk ca bopp njub di ko gidde nekk giddu bopp njub loolu rek lañuy xaar ci ñoom nag tous les surafaaw loolu rek la ñuy xaar ci ñoom nekk le dirigeant le plus honnête wane honnêteté bu mat sëkk loolu la ñuy xaar ci mbooleem kuy shérif bu góor ak bu jigéen ak xam-xam bu mat sëkk nag boo buñ ko deful rek ñu nappaa dañu kii may wax kii ñuy wax ni Cheikh Seydi Ahmad tiijaan yi lu ko may li mu am ba mu nekkee shérif bi pare dafa jàng xam lim xam am taxawaay roy maamam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam inna Ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan walam yaku min almushrikina lu tax shaakiran li an umi ijtabaahu moo taxin wa hadaahu ila siraatin mustaqim wa ataynaahu fi dunia xasanatan wa innahu fi laaxirati la min alsaalihin mu joxe ña ci yonent bi summa awxaynaa ilayka an ittabi millata ibrahima xanifan wa maa kaana min almushrikin doon wax ak ñun nag innama juila sabtu alal lazina ixtalafu boobu ñun ñoo ko moom de innama <laughs> ju'ila sabtu alal lazina ixtalafu fii wa inna rabbakum la la wa inna rabbaka la yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fii ma kaanu fiihi yaxtalifuuna moo tax nag mu delluwaat joxoñaat yonent bi ne ko bu leen topp nag ud'u ila sabili rabbika waaye bil xikmati wal maw'izati alxasana wa jaadilhum billati hiya ahsan lu tax inna rabbaka huwa aalamu bi man dalla an sabilihi wa huwa aalamu bil muhtadin moo tax nag lu la ci mën a dal fa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bihi waaye nag bu ko faale wala in sabartum fa huwa xayrun lissaabirin maa lay digal man yàlla fasbir wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala takun fi dayqin mimma yamkuruun lu tax inna allaha maa allazina taqaw walladina hum muxsinuun sadaqallahu alazim yal na yàlla dolli sutura fu ñu yemoon ci Cheikh Seydi Ahmed Tidiane waaw kañ sam xaruus ah tey sëñ Abdou ñëw na erreur noonu laa ko bëggee maa ngi yemoon ci fi fi ma ne Seydina Cheikh ku bañoon affaire yi jinne la waaye teewuloon nag mu am ko gis nga téere bii ma teg nii ki ko fi indi xam ngeen ko moo di oustaz alkarim Alioune Badara Ndiaye atijaani bi ko fi indi woon ki ko liggéey taalibe bàyyi la téere bi congaan mu nga ca Kawlax di muqaddamu cheikh al islam alaaji Ibrahima Niass Baye moo taalif téere bi jinne yi àndoon ak cheikh Sidi Ahmad Tidiane yëpp a ngi ci indi na ko man lu may wax rek <laughs> dama bëgg preuve maa ngi koy santee nag oustaz Alioune Badara Ndiaye Atijani ndax moo fexe ba baaxee ma ko moom bay di sàll defaral ma ko nii kon Seydina Cheikh lu rasulullahi am lu du nubuwa nañ déglu bu baax de li may wax de réew mi neexul waxee dama ne Seydina Cheikh lu rasulullahi am lu dul nubuwa rek Seydina Cheikh am na ko lu rasulullahi incarné lu dul nubuwa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane incarné na ko nubuwa rek la amul du yonent de maazallahi maazallahi du yàlla it nag waaye ñi baax ñëpp moo ci féete kaw ñu ngi nuyu alxaaji Malay Taal bu baax a baax di nit ku yiw di taalibe cheikh al islam alaaji ibrahima ñas baay bu cheikh ibrahima sàll bu sëriñ asan dem ñu ngi lay sant di gërëm dind nuyu alxaaji maam njaay dabaax mansour caam bu chérif ibrahima aydara atijaan yi mansour géey turandoo sëriñ mansour borom daara ji sidi ahmed mbay bu chérif ibrahima aydara atijaan yi le grand technicien yi honorable Abdoul Aziz Seck ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant Omar Gueye moom it ci techniciens yi la bokk ak Thierno Ndoye ak le professionnel nag Abdoul Aziz moom it Diop waaye ma santee ko magam nag Omar jóob moo ko xiir ci yii ba mu bëgg ko moom ni du Ndaw mel ci oto moom moom noonu la mel ci caméra moom dafa mel ni dañ ko toqantalee caméra Abdou Aziz Diop moom ragal naa bañ koy toqantal caméra da cee bokk ni Modou Ndaw bëggee oto ba oto gënal ko lépp lu yàlla bind noonu la Abdou Aziz bëggee caméra moom liggéey bi dafa ko bëgg waaw moom dafa bëgg liggéey bi bu koy def da ngay yëg ni avec yéene intention bu rëy la koy defee man dofuma de ku ne ci yéen rek maa ngi lay xool xam naa yéen ak may xool nag waaye maa ngi leen di xool de kenn ku ci ne ci yow kon nag loolu moom bu ko bëggee tey ba mën ko Omar Diop magam la ko yàlla jaarale te Omar waxoon na ma ko nag noon na ma lii may def amaan na moo ma koy dàqi ndax daf ko bëgg waaw kon jërë ngeen jëf Mayib de grand chauffeur ak sama bopp nag Ibra Guèye de grand taximan di sama chauffeur 2003 ba léegi ñu ngi ànd waaw maa ngi fàtt maa ngi nettali keroog bi may nettali démb benn sëtu Seydi Hadji Malick bi ma koy nettali nan laati woon Ibra waaw suñ histoire yooyee rek ay histoire la woon ma di ko nettali fàtte woon naa ne ma moo ma dawalal keroog ñu dem ci Thierno Bachir ca boobu Thierno ngi daloon boulangerie jaune Thierno ne ma demal léegi ca marché ba nga magnétophone indil ma nga tegal ma ko ma déglu acca ma ne Ibra ca ñu daw ñu dem HLM la woon de dem HLM ma jënd fa ma magnétophone double cassette indi Thierno tegal ko Thierno ñu bokk di déglu moom mii mu nga fa woon te loolu yàgg na waaw ah, Saalum portable laa ko jëndee ji woon ci HLM ci Momad Cissé ak rahmatullah alayhi wa radi anhu Boubacar Cissé yal na yàlla dolli leeram ak yërmandeem yii yëpp dañ koy wax rek pour xam ne ànd bi yàgg na de waaw ànd bi yàgg na te taalibe maam borom Touba la Ibra Gueye bii waaw taalibe maam borom Touba la 2003 ba léegi. moom mooy dawalal ak njàng ko maga samile moom Baye Fall la moom tabarkàlla ah di leen sant di leen gërëm nag boo gisee nag jinne yooyu duma ci taxaw ndax Seydina Cheikh sopputoon taalibeem buy ànd ak i jinne moo tax léeg ma dégg ko ne Chérif Ibrahima daa yor ay jinne ci lay boo waxee yow rek nga def ko am na sax ku ne moytu leen turi yàlla yim leen di jox non man ree daf may jàpp te man tur yàlla bu ma jox nit nit ma ko laaj bi mais noo may laajee tur yàlla ma jox la ko ba pare te wóolootoo ma moo tax ma ko joxe démb la mujj tur yàlla kenn dootu ko am ci man ndax dangay def ngir yàlla ñu ne da ngay njabem nit ñi qu'est-ce que ça veut dire ça démb la mujj nag hmm, démb kàggu yi ma génnee fii yooyu moom dinaa ko jox samay doom loolu rek a wér nag yooyu mooy yi wér péng dama leen ber yooyu moom incha allah sama doom yëpp dinaa ko photocopie doom bu ne ma jox la ci loolu lu ko ca neex mu jëfe ku dul ñoom nag duma la jox tus parce que nit ñi dañ yabaate tamit da leen di dimbale ñu bëgg a yegg ci sa kaw bopp te dangay def ngir yàlla rek ah xanaa sa doom du ne da koy njaber maam Ndiaye dëgg la wala du dëgg non j'ai sérieux des j'ai sérieux des problèmes di dimbale ay nit ñu ne da leen di njebem pour jël seen xaalis ci yow yaa ñëw laaj ma ndax tur sàngam amoo ko dimbale ma ci nàngam ma dimbale la nga ne léegi te bu la bu ma lay dimbale lu ma neex ma laaj la j'ai le j'ai le droit turu yàlla ñett koy am ci ñett moo koy tax nga jëlee ko ci nit nga ñaqal ko wala nga ñukkal ko wala nga ñuqil ko ñetti yooyu rek la de bu ko neexee mu boole ñetti yëpp dig ma ñaqal dig ma ñuqil dig ma ñukkal ñukk mooy nga ne ci kër gi mu di la yoon yi rek ñaq mooy nga dem ca tool ya di ko ñaqal ñuqi mooy nga làmb sa poos di ko jox pour mu jox la ko benn araf rek kenn amul njëgam xama naa ak turu yàlla nag ak turu wu mu mën a doon nga dimbale nit nag jox ko turu yàlla mu ne def ko ciy njaber pour jël xaalisam mais dis donc ban àddina lañ nekk ban àddina lañ nekk lay laaj moo tax kenn dootu ko am ci man ku yebu nga sawite tëri te li ma yor lu wër la nag waaw man yu wër rek laa yor yor ma yu caaxaan fayo fayo yii de damay wax te yàlla tax rek nag parce que nit ñi tamit nag jaruñu ko nag waaw waxin la nag du tee nag y des exceptions <laughs> waaw ah, waxin waaw ah, foog ñu dawal yërmande xam naa am na ñu seen dënn rëcc mais y a des exceptions mais du facile de du yombati de c'est pas facile comme bonjour de waaw ah, des exceptions parce que bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër waaw bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen ñëpp yemuñ bër bu setit du àllarba <laughs> tey démb la woon àjjuma tey la samedi noonu la nit ñi utee waaw noonu la nit ñi utee mais je fais très très waaw maa ngi ko doon def pour toujours may actuellement la raw moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tidiane soppul taalibeem buy ami jinne na leer soit clair moo tax su ma déggee ko naan man dama bari jinne ma yaa bari lu bon ndax jinne moom bon dong la def te mën a wor moo tax Cheikh Sidi Ahmad te dañ mën a gudd fan xoolal sam harus bi ma leen wax bi àndoon ak Seydina Cheikh yonent yàlla daawuda la àndaloon ba daawuda di xeex ak jaaluta mu nga fa woon ca xeex ba la bokkoon ba waqatala daawuda jaaluta wa aataahu llaahu mulka fa la ko fekk daawuda dem mu ànd ak suleymaan di ñëw ba ci yonent bi mu gëm ko ba ci seydina cheikh mu jël tarixa tijaaniya ak njabootam yi mu am yépp doomam yi mu am ba ci xilaafa seydi aboubacar si sëriñ babacar si la génn àddina xoolal lool ñaata siècle la bari na moo tax nag ki gudd fan yow nga gàtt fan yaa koy moytu <laughs> ah <laughs> waaw ñun ku ci am téeméeri at sax ñu ni laa ilaha illallah téeméeri at la am waaw ah, te jinne bi gën a gàtt gàtt fan dina dund cinq cents ans mu jàmm rek di am ci suñu at yi ñun moo tax Seydina Cheikh mosu ko sopp waaw ma mosu ko sopp samharus bii nag bi muy jël tarixa bi ci moom ñi mu am ñëpp la indaale moo tax tarixa bi kan ëpp leen ni jinne waaye duñ ko utiliser nag moo tax Cheikhul Xaaji Malick radiallahu taala anhu ba alxaaji Cerno Saidu Nuuru di ñëw ca moom ca waxtaan bi ma doon def dégg ngeen ko jinne yam indiwaale woon ne comme si sëriñ si seen dara wóorul naa yóbbu ñaar ñaar yi ma bàyyi ko ci buntu dëkk bi mu ñëw Seydi Hadji li ne ko ñaar ñi nga àndal yeewi leen ñu door a wax mu yeewi leen ñu dem te pourtant jinne dagan na am ko dagan na mu yeewi leen ñu dem Maodo waxtaan ak moom ba pare ba muy jóg di dem mu ne ko boole ci ñaar ñi nga bàyyi woon ca bunti dëkk ma <laughs> Seydi Hadji Malick mu ko boole ñaar ñi nga bàyyi woon ca bunti dëkk gis nga tariixa bi lim gën a bañ mooy mbiru luxus yi ay tabdil mbiru loxos yi ak jinne moom la tarixa bi gën a bañ tarixa bi bugg ko ku koy def di nga am cër ci tarixa bi waaye fi ñëpp yegg doo fa yegg daf lay baare ci tarixa bi moo tax Cheikh Seydi tiijaan yi may santit sama nijaay du juuf Tom juuf ba ci itali daf ma woo di ma wax ne ñu ngi suivre waxtaan bi waaye naa ko dimbale charte yi ma doon wax mu ne naa leeralal nit ñi ne leen mooy sama caatu maam Cheikhou Diouf mu ne naa leeral nit ñi ne leen Cheikhou na tiijaan yi forcé wul kenn pour nga ñëw ci tarixam moom foofoo ko intéressé xam naa am na ñu ca doon waxal ca effectivement ziyaare istimdaat bi la ma doon wax ziyaare istimdaat wax naa ko ba tey mooy sàkku yokk tëbb ci yàlla ci beneen sëriñ bu dul tiijaan mais loolu dina Cheikh am na ci droit xam nga lu tax mooy li ma waxoon rek jigéen du am ñaari jëkkër benn jëkkër ngay am benn nga nga nekk ci yoonu murit wala nga nekk ci yoonu tiijaan mais mënoo nekk ci yoonu tiijaan nekk ci yoonu murit mënta nekk teewul yéen ñëpp nag ay jullit ngeen la preuve li exemple bi may joxe rek est-ce que mën nga nekk policier nekk gendarme Ibra mën naa nekk boo xëyee sol tenue euh, policier bu ngoonee nga dem jël bu gendarme bi sol léegi ñu dugal la ci kaso bi waaw léegi foo policier amu fi woon foo gendarme amu fi woon bu yàggul jàppuñ woon temps yi le foo militaire waaw lu ko indi <laughs> jeex na loo ci doon foo rek ñu def la fa ñuy def foo yi moo tax mu zabzabiina bayna zalika laa ila haulaai wala ila haulaai loolu la alquran wax yàlla bëggu ko da ngay féete fenn du tee nga am ak ñëpp jàmm mais Seydina Cheikh tariqaam bi comme tariqa murid la comme tariqa ti xaadir la comme tariqa sajali la comme tariqa xalwati la dañu am ay charte charte yi moo di règlement yi boo demee tey ci police réglement police ak réglement gendarme gendarmerie du ñu benn bu armée ak bu police ak gendarmerie du benn wa kadalika bu douane ndax kenn ku nekk ak loi boppam ba fa am lii rek mooy tarixa bi Seydina Cheikh waxu la bul dem Touba waxu ko dafa ne demal tuuba añ fa lekk fa naan fa dëkk fa sax faf bu la neexee sax dëkk fa bu la neexee bés bu set nga dem nuyu xëy nuyu xalifa bi sëñ Muntaqa ne ko maa ngi lay siyaare jotewul ak sa tiijaan dara ziyaara istimdaad lañ wax yàq sàkkoo tëbb yokk ca yàlla mu des nag orma moo tax Seydina Cheikh ne na nga ormal wali yu yëpp bu leen bul xotti seen orma mu des mu di ma laaj ci wàllu ñaan fet lu sew la nag sew sew la bu dee feebaru yaram ka koy faj di murit daawal mu fajal la ko sa yaram moo am feebar yaa xam ban feebar la bu mu mën a doon ka koy faj di murit dawal mu fajal la ko du istimdaad de mu ngi mel ni nga feebar dem hôpital xaaral ma médecin tijaan bu lay faj léegi nga dee massa nag ñu évacuer la Europe ngay xaal médecin tijaan bu la faj léegi nga dee nit ñi nañ xàmmee <laughs> waaw demal hôpital rek ne man man médecin Tidiane lay xaar bu docteur Ousmane Dieng ñëwut wala docteur Yacouba Faye ñëwut euh, wala wala docteur Diakhaté ñëwut du ma faju léegi nga deede bu soobee yàlla yow boo yemee ci Jean Marc na la pikiir buut lum lay wàññi loolu daf ci bokk nit ñi tamit dañuy exagérer ba mu ëppal waxuma sax docteur docteur euh, euh, Mouride wala xaadir déedéet Jean Marc laa wax bokk leen sax diine na la Jean Marc faj. loolu jotewul dara ak tarixa bi istimdaat lañ wax bu fekkee nag ñaanu mbooloo la te kay ñaan du tiijaan tàllalal ndax ormal ko waaye ci sa nel man li ma bëgg ci Seexuna Tiijaan yi la nekk mais ormal ko nag mais moo moo gën kilifa gi di ñaan nga yor sa loxo wala ngay def nii di wane ne soxlawoo ñaan bu dee wali yu piir day rëq sa ndigg parce que da ko sous-estimé wali yu piir laa wax de bu dee wali yu te du tijaan sax mën na rëq sa ndigg yaa fa dem kon bu ñëpp tàllalee tàllalal ndax nga ormal ko waaye ñëpp tàllal nga bank say loxo loolu lan la ñàkk orma la ci wali yu bi nañ xàmmee tey jox nit ñi seen cër wa yu'ti kulli zi fadlin fadlahu yaa dem Touba bu sëriñ bi di ñaan neel nii yàkkaw likul sax mais xamal la ngay ñaan lan la du Cheikh Al Hadj Aziz dem na Touba donte moom cheikhul islam la ku ne mën na koo jiite loolu it beneen sew sew la ndax cheikhul islaam la kaana xut xutbul fardul jaami ku ko neex mën na ko jiite ndax ku mën a jiite moo nekk ci sa kanam du dem na tuuba ku ko jiite sëñ Abdul Xaadir Mbàkke sëñ Abdou Khadir sax puus na ko ñëpp doon wax naan bu jiite woon rek ñu ñu jam sëñ Abdou Khadir ma ne ñii ñooy dof sëñ Abdou Khadir di ilimaanu ilimaan yi xam lim xam di doomu sëñ Touba jàng benn ar xintewut lu dul jumaa ak jàkka jeex na loolu rek a doon biram kenn du ko gis fen jàkka ja jumaa ja jàkka ja jumaa ja këram pare na ci kooku daf di dof bay jiital kenn par hasard nii jiital gi mu doon jiital Alaaji Abdu dagan na sëñ Abdou jiite fa juma xam nga lu tax fa la dëkk mbokk deret la ci ñoom du fa gan de gan moo dul jiite juma niñ xàmmee gan Alaaji Abdu newuloon gan Tuuba dafa gane ji woon waaye du fa gan fa la dëkk ndax ñoo moom a bokk deret beneen bi cheikhul islaam la fu mu dem mën naa jiite waaye ci modeste ak xàmmeem moom it bu jiite woon ñu tuumaal sëñ Abdou Khader mu ne sëñ Abdou Khader doxal sëñ Abdou Khader Mbàkke jiite radiyallahu anhuma sëlmal sëñ Abdou jël micro daldi ne li yahlika man halaka an bayyina wa yaxye man xayya an bayyina keroog aaya bii la ubbee waxam mu ne lii ma def am na ñoo xam ne ci la ñuy alkoo ba faw waaye am na ñoo xam ne ci lañuy ñuy teddee ba faw mu ne lii ma def wóor na ma wóor yàlla bu ma tàggoo woon ñu tere ma waaye man Abdou du ma tàggu kenn ku dut yàlla mu ne lii ma def man Abdou wóor na ma ne neex na sama baay Alaaji Malick neex na sama baay sëriñ tuubaa mii kon kum naqareeti yoonu Abdou nekku ca keroog lii la wax commencé discours am ba discours ba di jeex mu ne sëñ Abdou Khadir ñaanal danga xam lu sëñ Abdou yéene woon nit ñi nañuy rafet njortu rek. nit ñi rafet njort te bañ di tàqale turuq yi tariqa yi du ñu ay noon tariqa yi du ñu ay adversaire ay mbëru làmb ay écrit du ñu tariqa bi tariqa yépp ay mbokk lañ ñoo bokk li ñu bokk ku ci mënta rafetal téyal sa gémmiñ ku ci mënta rafetal toogal ndax kenn waxu la nga dem waaw ku la obligé pour nga dem tuyaawoon ku la obligé pour nga dem Touba boo fa demee te mënoo ormal ñooña toogal sa kër foo ci mën a dem te mënoo ormal ñooña toog mooy farata ci yow loolu na ko ñëpp xam su ko defee Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu taala an loolu bokk na ci komba bi mu doon combat ci tariqaam ba gis nga ku toogaan tàllal sa tànk mu ne bu mu jublukal mu lay yàqu mu lay Idris de xoolal orma boobu. boo tàllalee sa tànk sax mën ne la tàllal ko mu jublu nii waaye bu mu jublu kër mu lay Idris waliyu la te shérif la bu jubloo xibla mu ne la ormaalal xibla bi <laughs> amoon na benn waaye bu am yaram xam nga ku am yaram ba mu ëpp mënuloo ferenkulaay nii ma def mënoo ko nii ma def nii nii ma toogee nii mënoo ko ferenkulaay rek ngay mën waaye saa bu mosaan a ferenkulaay rek Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi buub ko dindi ko dindil sa ferenkulaay bi al martabatu laatu saabi al martabatu laatu saamih al martabatu laatu saamih bu ma la baalee sax martaba bi du la baal mu ne ko wala nga àndu ca gannaaw waaye bul toog ci sama wet di ferenkulaay nga xam ne nit ñi kon ñeme woon nañ lu ne moo tax Cheikh Seydi Ahmada tiijaan yi orma moo ci sut ñëpp moo tax ma ne la lépp lu maamam incarné woon lu dul nubuwa Seydina Cheikh incarné na ko lu ma maamam amoon lu dul nubuwa Seydina Cheikh am na ko wax naa la fi ji bu la jinne yi yéemee yonent bi sallallahu alayhi jinne yi àndoon ak ñoom wax naa la suratul nu tuddati Camara oustaz Camara yooyu day yaa ngi door a ñëw moo tax tudduñ la woon oustaz Sidi Mbaye euh, suratul jinni gis nga bañ na ko ba alxuraan am na suratul jinni <laughs> saaru jinne yi te pourtant waxul jinne yi ba mu jeex lam ca traité ci ay nit sax mu ëpp la mu wax ci jinne yi waaye gis nga yàlla ku honnête la suratul insaan am comme wax na saaru jinne rek indi na saaru nit waaye jigéen ñi jaraw lakk yéen soratu nisaa am na waaye soratu rijal amul <laughs> alaaji male dégg nga boobu soratu nisaa i am na waaye soratu rijal amut seppi nañ nag yenn góor ci biir góor ñi tudd leen mooy soratu no Hud soratu Lot soratu Nuux soratu Ibrahim soratu Muusa soratul anbiyaa yi soratu Yuusuf yooyu yëpp ay turu nit lañ di ay yonent walla ku dul yonent sax am na muy suratu luqmaan suratu maryam te a bokkoon na ci nisaa yi waaye teewul ñu ne suratu maryam ah? waaye li ma bëgg a wax rek mooy suratu nisaa yi am na saaru jigéen ñi waaye suratu rijaal yi amul saaru góor ñi foofu sew sew la foofu sew sew la mooy jigéen ñëpp a jur góor ñëpp waaye góor ñëpp juruñ jigéen ñëpp wax la wolof la nag man wolof laa làkk de jigéen ñëpp ak jur góor ñépp waaye góor ñëpp juruñ jigéen ñëpp ma toj ko ok ah, walla ma bàyyi waaw ah, kay jigéen joo gis mën naa jur ku baax waaye du góor koo gis mën na jur ku baax jigéen joo gis nag mën na jur ku baax ci moom la aju moom jigéen ji moo tax yàlla général généraliser leen jigéen bu mu mën a doon bu waatee ne dina am ku baax rek dina ko am waaye góor gu ko fi waat di nga dugg ci kàmb xam nga lu tax mënoo tànn jigéen ja mën nga yaakaar ne bii la fekk du bii moo tax ma ne la du jur jigéen ñi mën nga yaakaar ne bii la nga dem ne oh malheureusement dëgg la wala du dëgg Ibrahima waaw taar ba alal ja jikko ja sax yëpp waaye nga yegg rek ma o malheureusement sama loxo sànni naa ko doo ko wax kenn nag te jigéen mën na sëy ak bandi am doom ju baax maa la ko wuyu wuyu jigéen mën na sëy ak moom am doom ju baax te góor mënu ko loolu tax yàlla ne soratu nisaa yi te tew newut soratu rijaal yi danga maa weddi yow bi may déglu te xaar weddi rek am kay doon seyal firawna mi yées ci mbindeef yi doomu aadama yëpp firawna ci yées moom la doon seyal ba yàlla taggu ko hmm? daraba allahu masalan lilladina kafaru imraata firawna is rabbi bni li indaka baytan fi ljannati wa najjini min firawna wa amalihi wa najjini min alqawmi daalimina hmm? wa maryama bnata imrana moo tax ma tuddee ko doom tudde naa ko doom sayyidatuna maryam waaw sama turandoo ma nga ne la ca kër ga di ma déglu mu ngi seetaan sax xam naa tey dina doose ci kanamu xale ya waaw moom laa ko tuddee direct amul lonk-lonkal de sayyidatuna maryama laa ko tuddee direct waaw wa maryama bnata imrana man sama turandoo yëpp ñi ma tuddee sama doom yi amul lonk-lonkal ñëpp direct rek lonk-lonkal baaxul léegi na gis naa yu senegaal di def euh, Sidi Mansour maam Ndiaye <laughs> Mansour gi am doom bëgg ko tuddee Sidi Mbay Mansour Thiam ak maam Ndiaye ne Sidi Mansour maam Ndiaye loolu lañ xewal léegi xale buñ ko ci def naa feq lay doon maa la ko wax xale buñ ko ci def naa feq lay doon nañ ko ba du yëf de ñaar rek la daganee abdullahi abdul gafuur abdul majid abdul karim abdul aziz abdul abdu abdu abdu muhammadul mustafa muhammadu mansour muhammadul habib muhammadu muhammadu muhammadu yooyu d'accord waaye yi ci des boo koy def rek sa doom lor nga ko kenn du ko def benn doom nga tuddee ko ñetti nit loolu la nit ñi xewal léegi man de kuy tudd sa doom wax ma ko dama naan la seetal ku ko tudd du ma ko tudd man am naa ci ful la ju day ni dama naan la seetal keneen ko tudd man tudd ma sama yaay laa koy tuddee ak sama bàjjan ba gaañu woon dañuy ñëw dey la di sama yaay laa ko bëgg a tuddee waaye dama ci bëgg a boolewaale sama bàjjan bi gaañu woon ma ne la seetal keneen ku ko tudd man lu man naa fekk buy tudd doomi jàmbur yi ci noonu dangay ngay lor sa doom yow euh, sa yaay nga bëgg a tuddee tuddeel sa yaay boo amee keneen tuddee keneen dama ci profité pour leeralaale nit ñi nañ bàyyi yooyu moo xew léegi nag moo loolu la ñu xewal léegi xanaa man euh, la imaam Moussa Gueye waxoon boog moo la dal bon ne na waaja daa am tudd dem ci Mansour Thiam ne ko sono bi yaa koy res Mansour ne ko moom kay yow laa koy tuddee Mansour ci am ne ko bés ba moom sonorisation moom bu ko xalaat maa koy res mu ñëw ci maam Ndiaye ne ko maam Ndiaye yow laay tuddee bés ba maam ne ko moom yow xam nga man xar moom yomb na ma dinaa la toppatool xar mu tudd mu ñëw ci Oustaz Sidi Mbay ne ko Oustaz yow yow laa fas yéene tuddee doom ji Oustaz Sidi làmb poosam yëkkati jox ko mu wër si ñëpp wax leen yow laay tuddee doom ji ba tudd ma jot Imam Moussa nee na ilimaan ji ñëw toog ñëpp joog Imam Moussa Guèye mu baax mi moo koy wax tey dafa nga am ngant moo tax ñëwul waaye dina ñëw samedi bii di ñëw incha allah bu benn ngant amul ngantal jàmm la rek nag nee na bi imam bi ñëwee toog ñëpp toog waa ji di dugg di génn rek di dugg di génn imam ne ko yow diw kaay ñu tudd xale bi mu ne maa ngi ñëw buñ xoolee kii xool kii xool gis ñëpp présent ñun noonu ñëpp yow lañ ñu tuddee doom ñi ñëpp teew nañ muy baagante rek imaam ne ko dañuy ñibbi de ñëwal ñu tudd doom ji walla ñu ñibbi nee mu ñëw toog imaam ne ko ñëw eh, wax kaay wax ma koo koy tuddee nee na mu jékki-jékki rek binni <laughs> imaam tuddee ko gaañi <laughs> ma ne mooy tuddee gaañi im aleyka salaam wa imaam tuddee ko gaañi xam nga kooku lor na doomam tuddee ko gaañi ah? Aline Badara Ndoye ñu ngi lay sant di la gërëm eh? Eh, ku ci am doom seetal ku la doy nga tuddee ko ko te koy tuddee sa doom it na ko xool ku la doy rek tuddee ko ko waaye sama yaay laa ko bëgg a tuddee ak sama maam bi woon ma boole ko ci hmm? Aline Badara Ndoye laa koy tuddee waaye dama ciy laaxaale Mansour Thiam ak maam Ndiaye bu maam Ndiaye amee fayda ak Mansour Thiam na la ne baal naa la sama wàll ah, kenn du ko def waaw ah, te moo xew léegi de nañ ko ba moo tax xale yëpp dinaa feq na ma yàlla baal ajra ñu dem wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha okay ahsanat jigéen mën na sëy ban am waliyu kaamil góor mënu ko moo tax yàlla indi soratu nisaa te indiwul soratu rijaal mhm. wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi izni rabbi waaye walazi xabusa mooy góor ñi laa yaxruju illa nakida lu tax mu ne wal baladu tayyib jigéen ñépp a teey moo tax jigéen ñépp ku ci ne mën naa waat ne fii may sëy dinaa fi am doom bu baax di ngeen koy dégg ci Adama Aïcha bu Cheikh Umar di ngeen koy dégg ci Maam Jaara maa nangu ci làmmiñu ci am na li te bi ma koy nettali dañu toog ab diir di waxtaan mu ne tekk noonu mu daan def sëgg ba mu yàgg lu war a mat ay 3 4 minutes ba mu yàgg mu ne baaba yaa ngi fi ma ne ko waaw mu ne ma baal ma de sëriñ Touba fi jaar sànq ne mu ngay dem ziyaare ji yaayam poroxaan te maa ngi ci néeg bi te gisuma ko man <laughs> maa ngi ci néeg bi te gisuma ko mu ne ma baal ma de baaba sëñ Touba fi jaar sànq ne mu ngi dem ziyaare ji yaayam poroxaan mu ne ma jigéen ju baax baaba keroog la ma nettil mu ne ma jigéen ju baax mu ne bi muy jàngal xoraan ba yegg ci xaatama nabiina wa imaamil mursalin rek yëkkat jooy jooy yu métti maam Mor Anta Sali ñëw ne ko Bousso mbaa jàmm mu ne ko du jàmm dama yaakaaroon yónnanti jeexul waaye aaya ji moo may wan ne yónnanti jeex na te dama bëggoon jurub yónnant ndax ña jur yónnant yi gënuñ ma te nañ def bi am yónnant mën naa koo def ba am ko waaye aaya ji nag moo tas sama yaakaar ne yónnantu amut waaye billaahi dinaa fi jur ko xaritoog yónnant amut sëñ Tuubaa du xaadimul Mustafaa jeex na loolu jigéen rek a ko sañ waaye góor gu fi yëkkati ne billaay rek mbëru ma yàlla baal sax duma tooñ kenn waaw xee kuy xee bi tàccu rek nga fi indi <laughs> waaw mag ñi dañ ko daan ñaan dañ daan ñaan yal yàlla musal ci góor guy xee bi tàccu te moo fees dell ci télévision bi léegi ponkalum jëmm ne warang warang warang warang warang ne cëpp xool góos xool duwaat naan xam nga fa la ñàkk jom yem te te te ñooñu nag ñoo yor ñooy ñooy star yi tey ñoo bari fans maa ngi ci mos a dox bay bay tolloog benn kii ma du ma tudd kenn waa ji naan ko booy ni ma baree gel temps yi fecckat la kat rek moo tax mu bari gel ñoo ñooy star yi fi mu ne moo tax bag yi bi mu amee jigéen ñi ci ëppale xamuloo góor ñëpp lajj nañ mention yu baax yëpp jigéen ñee ko jël ah mention yëpp jigéen ñee ko jël góor ñi moom xeebi tàccu rek lañ fi nekkee léegi ak triande ñu baal ma àq réew demee ba góor ñi nangootu jàng fecc rek ak théâtre ñu baal ma nag waxuma ne théâtre dafa xaraam waxuma ko de waxuma ne dafa bon waaye ñëpp mënuñu nekk ay artist Sénégal ku ku xëy am sant mille rek ñu ngi lijjanti cent mille yi foo ko amee. loola lañuy dem liggéey nañ bàyyi ñii artiste ñuy artist ñeneen ñi dem defi leneen ñu bal maq moo tax ñu yemoon ci Mariama <laughs> ah man nii lay waxtaanee ah nii laay moo tax Cheikh Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu an yonent bi salaay sallam nee naa la soratul jinni am na foofu laa yemoon soratul jinni la ca am yëpp nam xewee la xewee ci Cheikh Sidi Ahmada Tidiane wax naa la fii ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku baax moo la jox mbaax ñi gën ñëpp moo leen gën teewul yàlla daf ko daan wax ne demal ca kaab nga jàng alxuraan mu déglu la nga kaab doole ji réy na yonent bi ñëw nii ma nii ma doogee nii nii la rasulullahi di ñëwee ak ak yar ba teggin ba toog kaab ne ko lan la yow ya mu ne ko sama borom moo wax ne ma ñëw jàng alxuraan ci sa kanam nga déglu ma mu dal di yëkkati sóoratul jinni kaab di jooy muy tari ba sóoratul jinni jeex kaab ne ko wa hakaza nii la te wàccee wuñu alxuraan ci kaab léeg-léeg yàlla ne kaab waxal ne ne bi waxal kaab mu ñëw sa kër nga jàng alxuraan mu déglu la kaab du jàng de yonent bi jàng alxuraan kaab dégluwaat ko te alxuraan wàccul ci kaab bi suratul ni wàccee nag kaadu yakaadu naka kaadu libadan dimbale leen ma li ba laa soxla waaye la ko jiitu waaw internet yi tamit balancé leen ko Abdoul Aziz parce que ñii ma toogal moom duñ ñaang sax moom ay ostatise lañ waaye duñ ñaang loolu du orma lorma la orma ak lorma du benn <laughs> waaw surtout jinni yàq kaadu li ba daan laa soxla waaye la ko jiitu mu ngi ci suratul jinni yàlla def jinne yi xër ci yonent bi bëgg tuub yàlla ne yonent bi jinne yi dañoo bëgg tuub te bari nañ na dem ci xurwa dajale naa leen fa ñu ñu tuub ci sa kanam waaye nanga def ndànk nag ndax bari nañ doole te sa température ak seen bos du benn moo tax yàlla indi laaye may wax nii gëstul leen ma ko bi mu génn Hmm? waaw waaw acca demal waaw foofu la la maqaama abdullahi ah na leer rek laaya ji daal na foofu la waaye na ah. Ah? yàlla def yonent bi ñëw ne Seydina Abu Bakar dama bëggoon ñu ànd Seydina Abu Bakar ne ko fan mu ne ko ci xurwa dama war a dajeeg jinne yi mu ne ko ah yëg naa ne loolu du sama cër mu ñëw ne Seydina Omar dama bëggoon ñu ànd ci xurwa ndax dama war a waxtaan ak jinne yi te dañuy tuub Seydina Omar ne ko ah yëg naa ne du sama cër danga baax rek wax ma ko ndax ñoom ñëpp xam nañ li yàlla wax ci kaab ñu bàyyee cër bi kaab dégg ngeen wax bi ah, xam nañ li yàlla wax kaab moo tax ñu bàyyee cër bi kaab ndax moom rek la yàlla seppi woon yonent bi di dem ci moom di jàngal xuraan mu koy déglu yàlla def ah wa annaa kunna naqudu minha maqaida lis sam'i fa man yastami al aana yajid lahu shihaban rashadan demal ashurid asharun urida bihim am arada bihim acca rashada mhm. wa inna minna saalixuuna wa minna duna zalika kunna taraiqa min mi qidadan waaw kay demal an lan fil ardi xaraban mhm. demal mhm. Mhm. bi rabbina bi rabbihi wala raf demal hmm? waa kër waaw kay bàyyil ñëwal waaw kay hmm. répéteel ba ko waaw falaat aaya bi ci topp la wa annal masaajida lillaahi lamma xaama lamma ba nga xamee ne xaama taxaw na abdullahi jaamu yàlla bi mu yonent bi salaay sallam lu ci kaadu wa inna dellool ma ko wa innahu lii mbir tey mbir lamma ba nga xamee ne xaama taxaw na abdullahi jaamub yàlla bi muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaduuhu ñu di ko di jaamu boromam kaadu tuuti ko noonu alayhi jinne yi ci seen bopp libadan di ko lor waaw kaadu yakunuuna alayhi libadan foofu laa loolu laa soxla woon tuuti ko noonu yàlla ne jinne yi lor ko yàlla mujj ne jinne yi xajji leen xajji leen ngeen sori ko ndax température yu jinne ak bu nit du benn jege biñ koy jege def koy lor moo tax yàlla ne tuuti ko noonu ñu lor ko ba muy dem nag pour jinne yi tuub ca xurwa mu ànd ak ñëpp naka koo àndal ku dul euh, ni ñu koy waxee kaab du baax ndax moom la yàlla waxoon ne deel jàngal xuraan mu di la déglu mu ne kaab nañ dem ñu dem ba ca xurwa yonent bi sallallahu alayhi wasallam rëdd benn rëdd bu jub dalee ko nii comme ci koñ bi fii ni rëdd liy jubee rek te bosam baa gën a jub ndax moom lu mu def loolu loolaay gën ba fële rëdd yuy jub mu taxaw ci gannaaw rëdd wi kaab nekk fii mu ne kaab mu ne ko rëdd wi moo séparé monde jinne yi ak monde nit ñi xoolal lool mu ne ko tey maa ngi taxaw ci monde jinne yi yow yaa ngi taxaw ci monde nit ñi rëdd wii bu ko jéggi mukk soo koy jéggi yowmal xiyaam laa lay gisee waaye du fii ne ko loo mën a dégg nag loo mën a dégg bul jéggi rëdd wi dal di avancé dem kaab di ko xool di ko xool yonent bi di dugg ci xóor yu beneen mes gisatu ko cinq minutes rek kaab dégg bruit yi coow li wacca ca ca ca ca coow li poussière bi coow li poussière bi kaab nee na buur na am lu ko puus ndax dafa ne danger la bu ñu reyee yonent bi dafa deñ naan mook moo ma àndoon ba ca àll ba mu rey ko kon duma ko seetaan mook bruit bi mook bruit bi mook bruit bi mu ne mu jógaat ñaareelu yoon bi am lu ko jëñaat te kenn jëñu ko ku dut rasulullah te mu nga ci biir nee na troisième fois bi nag bi ma jëñaatee ba ma dëju mënumaa jóg moom kaam rongo ñi di tuur mu ne xam naa ne fii lay des tey ci xur wi ndax coow lii ma dégg boo demee rey nañ ko mu ne ab diir mu ne ma seen ko muy waaxu di ñëw leer gi di briwe ci xar kanam bi nee na mu ñëw ba jub ma far rëdd wi jéggi ne ma kaab am nga sens maa la doon jañ mu ne ko boo boo del boo duggoon rek yowmal xiyaam laa lay gisee ji mu ne ko yàlla def na cent vingt quatre mille jinne tuub nañ tey ñoo doon jaayanteeg man waaw cent vingt quatre mille jinne tuub nañ bés ni tey ñoo doon jaayanteeg man te ñu fas na yéen yéene tuubal yeneen cent vingt quatre mille yonent eh, jinne ñu demee jox naa leen digal pour ñu tuubal yeneen cent vingt quatre mille jinne comme ñoom ñooñu it noonu la ñuy tuubalee ilaa yawmil xiyaamati ndax jinne yi mat nañ nit ñi juróom-ñaari yoon kon wa iz saraf kon noonu yonent bi amee woon nag ay jinne Cheikh Seydi Ahmad Tijaani radiallahu taala an noonu la amee woon ay jinne ni yonent bi bañee woon di utiliser ay jinne noonu la Cheikh Seydi Ahmad Tijaani bañee woon di utilise ay jinne kon képp ku bokk ci tariixa bi na nga wattandiku mbiri jinne baaxut jinne day wor duma tudd turam am na góor gu baax gu nekkoon kaw la waa kër Cheikh Ñang ñi balancé Cheikh Ñang xam na ko ñoo yónnee aaya bi léegi baat bi sax ki ko jàng xam naa ko Cheikh Ñang xam na ki may wax alaaji Cheikh Ñang al ustaazul kabir wal muqaddamul kabir xam na ki may wax dafa bari woon jinne bari jinne boo xam ne maara deytaale kaw la ñépp a ko xam moo daan tuddal jinne yi seeni doom mhm. moo daan tuddal jinne yi seeni doom bés la tuddali jinne yi seen doom bay ñibbi ñu indi ko biñ ko indee di foo ak moom indi ko comme nii ci plafond bi ba mu tolloog moom ñuy soo foo moom bàyyi ko mu mu wadd ndigg li rëq ca la dee te jinne yi dañ doon foo moom rek moom <laughs> ah ñoom seen fo du yem <laughs> koo gis li wolof naan lukkukati jaan jaana koy mujjee koo gis mu am ay jinne ay jinne koy mujje koo gis mu yori jinne ay jinne koy mujje moo tax mag ñi bañ ko Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yi bañoon ko Seydul Xaaji Malik moom waxe noppi boo ci laalee dara sax du wax ak yow parce que nag jinne lu mu bari bari bari daraja ak doole nit a ko ëpp daraja nit a ko ëpp doole ndax amul yonentub jinne te yónnent nit ñi la yàlla yónni ci jinne yi kon nit mu ëpp doole jinne c'est-à-dire su jinne nag moo gaaw ah jinne vitesse dafa gaaw loolu rek la te seen mbir day gaaw ñun suñ mbir dafa yéex te yàlla nag mayandoorul benn nit lépp waaw benn jëmm wa ma jaala allahu li rajulin fii jaw fii min xalbay ni fii jaw fi yàlla ne defaluma kenn ñaari xol ci sa dënn benn xol rek laa la defal kon Cheikh Sidi tiijaan yi téere bii may wax ni taalibe bàyyi ñas rahmatullah aley moo ko taalif jinne yi àndoon ak Cheikh Sidi Ahmad tiijaan yi yëpp mu ngi ci am na yoo xam ne sax du ma ko tudd wax dëgg yàlla waaw dina am soxnaay jinne Sëriñ Alfa Xuma ca Ndar man xam naa ko te moo ma ko wax soxnaay jinneem da daan aye si ñëpp di ko gis ñépp xam ne tey moo moome alaaji soose njaay ca ndoxoobe mbokk maam la ci oustaz Malick Sall mii amoon na soxna jinne ñëpp xam ko néeg ba soxna si newoon kenn du fa dugg dañuy am ay doom mais doom yi jinne la ñuy nekk Mhm. boo ci amee doom ay jinne lañuy nekk yooyu duma ci taxaw damay bañ mu muy tuuti ji waaye duma ci taxaw moo tax kër sëriñ si ñu mat a de am na ci ñoo xam ne seen doom yi duñ doomu kese kese de genn wàll jinne genn wàll nit li ndax dañu am ay frère jinne am ay sœuru jinne ah loolu yàlla nitu yàlla dafa dangereux nitu yàlla tandi rek waaw boo leen xamoo leen bàyyil waaw mais wattandi rek moo tax Seydina Cheikh radiyallahu an fekk na wóyu boo xam ne agresseur la woon nu tuddoon na ci sax sa siidi ah eh? Zaanuun waaw kañ hmm. Ibrahima Rayaahi di muqaddam ngandum ponkalum muqaddam maamu yàlla zanun la pour wan la ne Seydina Cheikh newuloon pour defar ñu baax rek zanun agresseur la woon nekkoon diggante Fès ak Rabat àll boobu yëpp ku fa mos a jaar guddi gannaaw timis doo tukki moom ak équipe am la ñoo daan agressé bu ci benn agressé day sukkandiku nag bay def yëfu caaxaan déedéet bokkul le fii dañ lay wulli ba nga nooy Sénégal moom agresseur wulli ba mu nooyee rek dóori xeer ba mu maara day taali parce que tamit agresseur dafa ñaaw agresseur dafa ñaaw Zanun ndekete ku mas a agressé rek doo génnee azaka wóli bu doon nëbbatu la ak mbàndam nag nekk ci àll bi Cheikh Sidi Ahmada Tidiane ko feeñal bés la am benn wóli bu dee bu daan chaise ca xadara ba te moom moo yilif xadara bi ndax xatmiya bi katmiya bi moom Seydina Cheikh mooy désigné ña fay nekk jëlee ko ci ordre maamam sallallahu alayhi wa mu am ku man benn waliyu bu manki te ci aktaab yi la bokkoon te 16 bi warul vide mu des 15 minutes pour ñu dajee ci xadara ba ñu ne Seydina Cheikh yaay désigné kan moo war a nekk muqaddam yëpp ku ne di xalaat man la Seydina Cheikh ne bind benn lettre ne daw leen yóbbul ma ko Zanoun fa mu nekk ñu ne kooku bu buñ demee mu ne xanaa dumaa la yónni demal nga jox ko lettre bi waa ji saxaaba bi lagg bu Seydina Cheikh muqaddam bi lagg bu muy dem bay dugg ci biir foore bi dajeeg Zanun muy ñëw mu tikkee Zanun ne ko agressé wu la indi lettre bi mu jox ko leetar bi mu liir rek sëgg jooy dal di ne weer na ma summi mbubb mi ba mu set sol yeneen mbubb yu rafet ànd ak moom Seydina Cheikh yégal ko ci xadaratul ilahi immédiatement avant quinze minutes après avant 15 minutes agresseur la woon après quinze minutes xutbu la defar nit fa la yem avant 15 minutes agresseur la woon après 15 minutes xutbu la ñu seese ca xadara ba moo tax Seydina Cheikh ne sama lonk bi ku ma ko sànni rek nga ñëw hmm, mu ne man maa bëggul nga ñëw rek waaye ku ma sànni sama lonk bi nga ñëw te ku ñëw rek ma defar la ba nga gën a baax ñi fi nekkoon <laughs> معناه أعظم عن يجلى بقرتاسي غوث البرايا أبو العباس أحمد من معناه أعظم أن يجلى بقرتاسي صاعرك بالعظم لا تقلد إلى الياس واصعب أخ العظم ذا جد إلى فاسي عوز البرايا أبو العباس أعمد من معناه أعظم أن يجلى بخرطاسي واشرع موتون الصبابات لجيرتي وحي حيا بهم قد كان إناسي عوس البرايا أبو العباس أحمد من معناه أعظم أن يدلى بخرتاسي ذاك الذي نال ما لم يعوي بشر من العطايا ولم يغرى بمغياسي غوث البرايا أبو العباس أحمد من معناه أغبم عن يدلى بخرطاس حقيقة الكون معنى السر بساط يدي ومقلاتي واللسان بين جلاسي عوز البرايا بالعباس أحمد يوم غضب أن يجلى بقرتاسي تبارك الله رضي الله عنه jërëjëf Alioune Badara jërëjëf Maam Ndiaye jërëjëf Mansour Thiam ah namoon nañu la waaye na xol yaa ngi gise eh, Cheikh Seydi Ahmad Tidiane am na genn góor gu ñuy wax këyit laa tiim nii nag mooy yi ma bindoon dama ko def nii Ibnu Faris nee na dafa am bés ma toog ak Seydina Cheikh mu ne dafa am bés mu toog ak Seydina Cheikh radiyallahu taala di waxtaan nee na boobu mu ngi am juróom-benn fukki at ak juróom-benn moom 66 ans moom. ibnul faris mu ne Seydina Cheikh di jàng alquran mu ne ba mu yàgg mu arrêté li muy jàng mu ne bi muy arrêté li muy jàng ak bi yonent bi di yegg si benn mu ne am na benn suba teelit ñuy julli mu ne keroog Seydina Cheikh mu ngi tari suratu duha ak suratu alam nashrah nee na bi muy yegg ci alam nashrah bi rek la yonent bi yegg si taxaw ci maqa maqa fi ñuy jullee ñëpp di ko gis mu ne bi muy daaneel alam nashara bi la yonent bi dem waaw pour wane ne Seydina Cheikh daw tàqali ko yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax nim ko yombee woon defar ku bon ku ñëpp jàpp ne dafa bon la defar la ci benn seconde da nga yéeg ci ñu baax ñi moo tax kenn jarul di sous-estimer kenn jarul di xeeb ndax xamoo kañ la ko yàlla defar ak kañ la koy defar ak lum namm ci moom kenn xamu ko moo tax Cheikhul Hadj Abdou Aziz lim daan wax rek ne ni yàlla réyee ci ñun yàlla na lépp yàlla réyee noonu ci ñun waaw xool leen son bi dafa mel ni gaa yaa ngi koy jàmbal mu ñëw normal waaw kon kon tax Seydi Ahmada Tijaani radiallahu taala anhu cëram ak mayam ñépp xam nañu ko waaye simplicité bi mu àndaloon nag moo jaaxal ñépp mosul nangu ko ko dar mosul nangu ko ko dar ñii gaa yi di def mosul nangu ko ko koy xàllal mosu ko nangu su dul wasifa du xadaratul juma mosul nangu fukki nit ñu ëpp ko ci jotaay neuf personnes ak moom muy diis buñ koy buñ koy ëpp rek mu ne wàññeeku leen balaa seytaane di dugg mu ne ndax mbooloo seytaane la kon moom yàllaa ko jox mbooloo waaye du lum bëgg hmm? du lu bëgg de ko fukki nit la daan toogal juróom-ñeenti la ñuy doon ak moom suñ ko naree ëpp mu ne xallu wàññeeku leen su dee wasifa nag du limité su dee xadara du limité waaye bu dee waxtaanu simple nii du ëpp fukki nit ñooñu lay wax dem leen wax ak ñi ci des ku bañoon aadala la moom Cheikh Seydi Ahmad tiijaan moo tax mujj jamonoom dañu dematul dëj dematul ngénte eh, moo tax turandoom bi roy ko ci de waaye la ca moom du ñëpp de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al moom laa gis ku ko roy ci moom ba mu jeex takk Serigne Cheikh mujj dundam yi fanweeri at yi mujj yëpp moom li ma wóor moom 30 ans yu mujj yi xam naa ne ëpp na ko waaye 30 yi mujj ci dundam yëpp demul dëj demul ngénte xam naa ni ëpp na ko waaye pour bañ a wax lu ma xamut ak bañ a kàcc bañ a fen moo tax ma ni moo tax ma ni 30 ans yu mujj yépp Cheikh Sidi Ahmada Tidiane yi eh, Serigne Cheikh Tidiane si al maktuum demul dëj demul ngénte jëlee ko ci turandoom wax naa ko fi bi may waxtaan ci moom président Abdou Diouf mos nay mayee doomam yónnee ci moom ne ko nag li li nga gën a bëgg laa la defal ndax bëggoo mbooloo waaye xam naa ne sëñ Moustapha Bassirou sa xarit la Mbakke ma bëggoon rek yow ak moom rek ngeen ñëw rek mayel ma sëy bi sëriñ Cheikh ne ko kon muqaddam yëpp bàyyi ma ñaata muqaddama fi mayee seen doom yaakaar sëriñ kër si te dew ma ca ah, mu ne ko du ko def bàyyil ma yóbbal rek Pape Malick waaw ah, bu leen Pape Malick doyee rek baax na Pape Malick a mujj dem bi bàyyam génnee àddina Njaay Juuf mu ne Serigne Cheikh yaa ma ci doy kaay jullil ma ko Serigne Cheikh ne ko kon àddina génn ci man ñaata mu xaddama fi dee julleewu ma leen bàyyil Pape Malick ñëw taxawoo doomu boppam muy asiyatu asiyatu doomu boppam lamin Diack suñu bàyyi lamin Diack yal na yàlla gën ko leeralal ay mbiram ba mu génn ci yi mu nekk ñibbisi ci mbo njabootam ak jàmm dundaat fi lu yàgg ak magam yal na ko yàlla def defal ko ko defal ñu ko defal ko mbooleem julli Lamine Diak moo ko doon denc bi mu génnee àddina Serigne Cheikh dafa ne Pape Malick yóbbu leen ko Tiwaawan bu ngeen demee ngeen wax sëñ Abdou mu taxawee ko wala rek sëñ Pape Malick wala ku fa nekk yéen ngeen taxawee ko sëñ Pape Malick nee na ma ne ko buñ demee ñu jàngal ko alxuraan ne ëpp naa def. bu leen ko wàccil kaameel bu leen ko wàcceel kaameel de ëpp naa def ndax alxuraan moom yàlla dafa ne hudan lil muttaqiina aasimaa ko jur nag waaye ma ndax ci ñi ragal yàlla la bokkoon ndax ragal yàlla mbiru xol la te wax na ko ci sëriñ Babacar si maa ko déglu kaset bi sëriñ Babacar génnee àddina alu njaay alsaan njaay alu di interroger sëriñ Cheikh maa ko déglu bi mu koy laaj ci sëñ Babacar di ko laaj di ko laaj ba yegg ne ko ndax ragaloon na yàlla dégg naa ko ragaloon yàlla la mu ne ko wóoruma te baayam la koy laaj kat te moo te moo denc ci baayam ci bàmmeel ah non Serigne Cheikh honnêteté am dafa roy turandoo bi ba mu jeex takk takk takk takk maa déglu cassette bi te mu ngi ci internet bi déglu leen ko Alassane Ndiaye di alu laaj ko ne ko ndax Serigne Babacar Sy ragaloon na yàlla dégg naa ko ragaloon yàlla mu ne ko wóoruma mu ne affaire ragal yàlla affaire xol la personnel la diggante jàmm bi ak boromam te man Cheikh Tidiane neew ma ci xolu Serigne Babacar pour xam ko waaye daal mandarga yi wane ne ku ko am ragal nga yàlla yëpp gisoon naa ko ci moom <laughs> seetal li waaw mu ne ko ah li ma wóor daal moom mandarga yi wane ne kum nekk ci yow ragal nga yàlla yooyu yëpp de gisoon naa ko ci Serigne Babacar waaye wóoruma nag ndax ragaloon na yàlla seetal la mandute fa la yem soxna Asi bi mu génnee àddina mu ne Pape Malick bu ngeen demee ngeen taxawu ko Imam Moussa Gueye mi nga fa ak ñeneen ñu ma xam Lamine Diack ñëpp xam nañ ko xam nañ ko man nit yàlla def biñ koy denc Pape Malick ne ma laaj sëriñ bi ne ko bu ma demee ndax ñu wàcceel ko kaamil mu ne déet wóorut wóorut de ndax alquran hudan lil muttaqina la te wóoruma woon ndax aasi bokk na ci ñi ragal yàlla hudan lil muttaqina la yàlla wax ci suratul baqara te wóoruma woon ndax aasi kaanat minal muttaqina suñ Pape Malick sëñ Pape Malick rahmatullahi alayhi wa radiyallahu ne ko kon bu ñu demee nu ñuy def mu ne bu ngeen demee rek na na na salaatul faatihi yi bari waaw ndax yonent bi rahmatan lil aalamiina la loolu la ko yàlla wax te yërëm ki dem yërmande rek lañ soxla ci moom waaw ah, loo ciy dégg yàlla yàlla yërëm rek ngay dégg mu ne ki dem yërmande rek lañ soxla ci moom. waaw waaw ah. ah. kon. kon yërmande boobu ñu soxla ci moom loolu la Serigne Cheikh wax ne kon nañ day jàngal leen ko ixlaas ci turandoo bi la ko royee Cheikh Seyd Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mujj na dematul ngénte dematul dëj ku am doom bëgg mu tuddal la ko danga koy indi ba daaru miraar këram yow kott yaay ñëw gàddu liir bi mu génn ci ëtt bi noddu ci nopp lay jor liqaam ci bu càmmooñ ñaan jox la nga dem yow kott de yow baay bi yaay gàddu sa liir indi ku am néew bëgg mu julleel la ko ñetti nit la may ñu gàddu néew bi indi ci bunti kër gi daaru miraar mu génn ci néegam mu yow moom ak ñetti nit yooyu allahu akbar ñeenti yoon allahu akbar jullee ko ne jël leen seen néew yóbbu ndax bañ rek folklore waaw moom Seydina Cheikh nii la daan dundee de bañ folklore bañ folklore ñetti nit lay may may ñu gàdd néew bi indi ko ba daaru miraal teg ko ci bunt bi yëgloo ne yegg si nañ mu génn xool ba ñetti nit ñu taxaw mu taxaw ci kanam allahu akbar allahu akbar ñeenti yoon sëlmal na jël leen seen néew yóbbu bés Cheikh Mouhamadul Xaali laaj ko ne ko ni ngay doxalee léegi ak ñun lan la mu ne dëj yee ngénte yi gisatuma ci yàlla aadaay kese la te man xajuma ci aada ëpp naa aada mu ne ëpp aada tax ma fekk fi seen jigéen ñu rafet ñu baax ñi jéggi leen fi dem ca marché ba jënd ñaar ñaari jaam goreel leen def leen muy samay soxna xëtt aada tax Chériful Fatimi fa la xëtt aadayam doomu noobul yëpp nekk fi ku ne bëgg koo may doomam mu lank dem ca marché ba jënd ñaari jaam yu ñuul wax nañ ne wax naa la fii ca début ba ne la kenn ki sax ne nañ ndar ndar la am na mbokk ci ndar te mooy mooy mabruuka moo jur Muhammadul Habib goreel leen kii mu tuddee ko mubaaraka kii mu tuddee ko mabruka muy ñaari soxnaam mu denc leen kii moo am ci muhammadul kabir kii moo am ci muhammadul habib la ma doon wax ñëwul muhammadul kabir muhammadul habib yonent bi dañ bëgg koo koy tuddee nga idaafaal ci beneen tur bañ yem ci muhammad rek muhammadul mansour gis nga seydal haaji malik mi dégg muhammadul habib doomam muhammadul mansour Seydi Sidi Ahmad Ahmad moom nanguwul idaaf ndax kenn la woon ca kaw moo tax loolu sew sew la inni ubashirukum bi rasulin yaatiya min baadi ismuhu ahmadu nanguwul ñaar ahmadiya baa tax muhammadiya bi nag nangu na idaafa moo tax muhammadul mansour muhammadul kabir muhammadul habib waaye ahmad bi nanguwu rek la nangu ku tudd Ahmed rek mën nga ko wax Abul Abbas ndax daraam du ñagas hmm, ñu wey euh, amul jotaay bu Seydina Cheikh di toog te du yonent bee toog ak toogandoor ak moom balaa lekk yonent bee ko naan lekkal balaay naan yonent bee koy naan naanal li muy for bëkk ak si néew sax yonent bee koy wax def ko temps ci minute moom Seydina Cheikh radiallahu taala anhu wax naa la ne balaa muy génn àddina defar na vingt quatre mille saxaaba waxuma muqaddam de saxaaba nit ñi na boo nee saxaaba seen dënn yi rëcc yonent bee ko joxoñ sallallahu alayhi ne ko asxaabu asxaabi talaamizuka talaamizi wa fuqaraauka fuqaraa amul kat waxu ko waxu ko asxaabuka ka kaaf amu fa boo amoon kaaf rek mu am différence mu am tasbiya waaye daf ko ne asxaabuka ñi ànd ak yow pourtant nit ñi lu tax ñuy diisal baatu baatu saxaaba ñi àndoon ak yonent bi taxul ñu nekk ñi ànd ak Seydina Cheikh Seydina Cheikh li mu wax c'est clair et dafa ne saxaaba yi doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam laxaabi fas yi seen fas ya wal aadiyaati dabbaxan fal muuriyaati qaddaxan boobu moom la doon firi wal muqiraati subaxan fa asar na bihi naqaan fa wasat na bihi jamaan mu ne puurit moomu daan génn ci gémmiñi fas yi di naaw mu ne la ci rëcc tag ci sama kaw sax moo ma gën man Cheikh Tidiane waxuma la ak saxaaba kooku kooku ay kii wàccoo naag ñëpp est-ce que nit ñi dégg nañ li may wax daf daan firi alquran moom Seydina Cheikh ci zawiyam ba ba muy firi nag wal aadiyaati dabbaxan fal muuriyaati qadaxan fal mughiraati subaxan fa asarna bihi naqan fa wasatna bihi jamaan inna linsaana li rabbihi lakanuud wa innahu ala dalika la shahid wa innahu li xubbil xayri la shadid afalaa yaclamu ida bucsira ma fi lqubuuri wa xussila maa fi suduuri inna rabbahum yow yawma idin la xabiir ba mu koy firi la ne fas yooyu yàlla di tagg xam nga yàlla ay tagg fas yi kon nit ñi waxee nopp yàlla bu demee bay tagg fas kon nit ka waroon fas wa nag te nit gën fas foog nit ñi am xel yàlla di tagg fas ya sa waa ji sa xarit sa mag sa soppe Abdou Aziz Mbaye Abdul Abdou Aziz Mbay ca nuuni ya ba xitaalu demal seen dënn ya ok waaw ah, ca nuuni raas ko waaw ah. mhm. ilaahi eh, إلهي توبة قبل المنون مالكنا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون مولانا منين يوم زو اسم المنين مولانا منون غير ذي مولانا ومفتاح ومصباح منير مولانا جواد مصطفى أين موضنا مناجا مرتدا موضنا وليس على المغيب موضنا وعين الخلق عينان موضنا يبايت من أطاع من الأيون موضنا به عينان أنلنا موضنا يماثل به نيلا def leen ni wa idlaalun bi aynin fi hajirin fa iraasun lahoo kullal mawdane siraajun min ashiati is تنرنا وعين قد درت كل مودنا فيا عجبا لزنو مودنا ونور العسل في ماء وطيني وفي النور في ماء وتين مودنا وفي صلب لإلياس اليلا مودنا ويسمون مواسم مودنا نصبائك رسول جوائر مذ مولت والإملاء وهو عين مودنا له قبل الولادة موضن تراها أمه دو موضن نقي في ولادته موضن يحيي كل ذي عقل بنيني ومكحولا ومسرورا نظيفا أتى يوم الولادة في موضن يصابع ربه تسبيحا بي عبد بروريز كسار مستكين ممد وبيت الله في ذو ترار فيا لله من سهم مكين مودنا ومال البيت بالأركان أطى ممد يكبر ساجدا مثل مودنا ومولده به شرف موضنا ومولده شرف الوقير موضنا ومولده مولى الحاج مالك نينا ومولده سوى جانب مدينتنا مولده الحاج مالك نينا ومولده mawdane wa aswaatul xuyuli ruqud bar mawdane dunun fi alil mayni ilahi ya ilahi awalay ilahi tawbatan مولنا وأصوات قيود رقود بأس دنيا قطان العرب يذري بالأتون أيخ foofu la waaye da ngaa yéex waaw Maodo ne Seydi Hadji ku yéeme la Maodo ne seen dënn ya xitaalul xar bi boobu mu ci jublu saxaaba yi ci seen bopp ak fas seen dënn yi da dégg ni muy riiree bu nekkee ci jihaat dangay dégg ni seen dënn yi di riiree comme comme ndox euh, sujeer kastiloor bu ñu teg ndox muy bax noonu nga dégg dënn fas yi di def mooy indi nag seen gémmiñ ñi di génnee fuurit Cheikh Seyd Ahmada tiijaan yi nag ne fuurit moo ma waxut fuurit ma de mu ne la ca naawee ngelaw li naawal ko mu ñëw tis ma moo ma gën man Cheikh Sidi Ahmad Tidiane kooku xam na luy valeuru saxaaba yi waaw kay moo tax nag yonent bi joxoñ ko ne ko asxaabuka sa sa ñi ànd ak yow asxaab yi mooy ñi àndoon ak man yégal naa leen foofu wa talaamizuka sa taalibe yi talaamiz ñooy sama taalibe yi àndoon ak man wa fuqaraauka ñi ñàkk te ànd ak yow fuqaraa yi mooy ñi ñàkkoon te ànd ak man loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax alhaaji Badara Gaye ñu ngi lay nuyu di la ziar bu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane si al maktum maam gan yu baax nag gis ngeen ki daan bind ci internet bi ngeen ma ko daan wax may sa eh, naka nduur may sa nduur sekk mu nga ne le toog waaw mooy ndaw sa le toog ci gannaaw mooy may sa nduur sekk moo nekk Espagne ànd ak borom këram Babacar ak doomam Mohammed xam nga fii la cofeel yam waaw su ma demee Espagne it nii ñu ko defee noonu lañ koy defee léeg ñu ñëw hôtel ba fekk ma fa léeg ñu fekk ma kër Maodo Ndaw waaw nuyuwanteeg man yëkkati seen teraanga jox ma ñëw nañ ba Sénégal it ñu ngi nii toog waaw kenn bu ñëwoon ci ñoom sax ëpp na waxuma laa mu ngi nii toog moom Babacar di boroom këram ak soxnaam muy Maysa nduur Seck ak seen ndoom sele muy Babacar yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen ñu baax lañ waa Tëngéej lañ waaye yàlla xiir leen ñu bokk ci ña nekk Italie ñu bokk ci nekk itali e, Espagne di moyes ca Madrid sama dëkk man Madrid mooy sama dëkk Madrid ci sama xol bi laa ko bëgg xaw ma lu tax dama ko bëgg Madrid dama ko bëgg bëgg bëgg ba man damay jaaxle sax yàlla xam na ko damay jaaxle damay jaaxle waaw ni ma bëggee Madrid yàlla rek ko ko xam waaw yàlla rek ko xam léeg-léeg sax dama naan est-ce que duñ ma suul Madrid ndax rek bañ ñu di ma siyaare si xam nga balaa ngay dëgg paas bay dem Madrid <laughs> di daj lu ne ah, boo nekkee foofa guddutee ku la yónnee li xalaas mu fekk la fa <laughs> li Serigne Cheikh waxoon alaaji Basiru Jaañ ndeysaan marem eh, ku baax Basiru Jaañ ndeysaan Serigne Cheikh nee na dafa ñëw bés nuyu si ba ñuy waxtaan muy wax ni muy jaamoo yàlla boo toog ak sa kilifa danga koy wax ni ngay jaamoo yàlla mu ne ba yegg ci ne ko nag fa may denc ëllëg fañ may deñ denc ëllëg sax jënd naa ko ba noppi ca ca yoof jënd naa ko semaine bi jot dinaa dem def fa nàngami latif nàngam ci turi yàlla wàccee fa kaamil Serigne Cheikh xaqakaay ne ko ah yaa ngi bëgg saalit nag ne ko yooyu yëpp ci xeetu saalit la bokk rek ah yaram wi matière la rek fu ñu koy def ëllëg lu ciy sa yoon nag loo fay jàng la ngay yóbbaale rek am solo <laughs> xoolal sëriñ kaam min al aarifina seydina sëriñ Cheikh ci aarif billahi la bokk buñ la dugaloon ci biir géej du tere yaa ngi ca asamaan ah, kañ loolu la koy bëgge a wan waaye baax na nag fuñ la def gaa yi ñëw ñoom sol ñëw di la ñaanal ak yooyu baax na yooyu dara nekku ci baax na de loolu baax na loolu baax na waaye Madrid dama ko bëgg ñoom ñii xam nañ ko ñoom xam nañ ne man Madrid rek laa bëgg ñu baax lañ nag moo tax Cheikh Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu borom bugyatul mustafid ak munyatul murid yépp wax nañ ci yu kawe yoo xam ne kii ma tudd nii nag moom daf daan daanu xaal ci Cheikh Seydi Ahmad Tijaani moog Ibrahima Rayaahi waaw ndeysaan dëkk bi ma doon tudd rek suus suusa la ko arab di wax waaye suus gis nga keroog laa ko fi tudd rek gaa yi dem def fa attentat ndeysaan ba rey fa benn gendarme fan yii rek ñu génn semaine bi ñu génn suus ca euh, Tunisie na Cheikh def na fa un an waaw tarbiya fa ñu bari yëgal leen ci yàlla ñu bëgg ko faatiyee mu daw ñëw faas ci la door a sanc Fez tabaarakallahu moom Cheikh Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu nag chartu tariqaam bi waxoon naa leen ne yonent bee ko ko jox mubaasaratan gannaaw bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu bëggee Cheikh Seydi Ahmad Tijaani nekk lim nekk Seydina Cheikh xam liy responsabilité yenu mbiru jaam yi daf ko ne du nangu nga yen ma ko mukk te mayit joxuma la charte yi tax su ma ko yenoo mu woyof ci man waaye su ma nangoo rek nga yen ma ko rek fekk eh, affaire bi diis na gan man maa koy mujje Serigne Cheikh nee na yenn loo àttanul mu ne ceetaan maay njëkk a métti <laughs> waaw Serigne Cheikh na yenn loo àttanul mu ne ceetaan njëkk a ña lay seetaan ñooy njëkk a sonn sax balaa ngaa sonn yow fekk ñi seetaan sonn nañ bu yàgg waaw Serigne ku yàlla dimbale la waaw ku yàlla dimbale la moo tax Seydina Cheikh nag. charte yii may wax moo ko jox yonent bi yonent bi door koo jox chartu tariqa bi kon moom ay chartam moo jiitu charte yonent bi xaw ma leer na ci li may wax la déet ndax bëgg njaboot moo tax nag bokk na ci sama nijaay sama nijaay Mamadou Diouf muy Tom Diouf bokk na ci lim ma ñaan mu ne ma nanga nga leeralal nit ñi charte tarixa bi te balaa ñoo jox kenn tarixa bi ñu jox ko charte yi te effectivement gars yi léegi ñaar moo am ñaari sor benn nga jox ko tarixa bi ba noppi ni Serigne Cheikh Tidiane si al maktum daan def bi mu tëjoo boo ñëwee Baye Omar Samb rahmatullahi alayhi wa radiyallahu day jël sa kurus dem ca biir jox ko sëriñ Cheikh mu ñaan ci la ñuy ñaan ci kuy joxe wér di jox ko Baye Omar mu ñëw jox ko bu boroom ñëwee mu ne ko nee na nga dem ci diw mu jox la charte tarixa bi wala Baye Omar ci boppam jox la charte tarixa maanaam na koo xam ne damay bañ a tudd rek waaw ah keroog bi ko sëriñ Cheikh joxee tarixa bi daf ko ne demal ca Chérif Ibrahima mu jox la charte tarixa bi mu ñëw maa ko jox charte tarixa bi waaw ah, loolu du ma tudd ndax kuy defar du tudd waaw ah, te du moom rek nag boobu dagan na waaye bi gën nag mooy nga jox ko charte yi ba mu ne waaw walla déet Seydina Cheikh moo ne ku bëgg tariqa bi ku mën a doon lum ko xam xam xam xam xam balaa nga koy jox tariqa bi jox ko charte yi xam nga lu tax mën nga koo jël te xamoo woon charte yi xam charte yi mu diis ci yow te boo ko bàyyee alku moo tax xam ngi jiitu baax Seydina Cheikh ne boo ko joxee charte yi mu dégg ko ne waaw nangu naa mu ne jox ko te xiddi xiddi mooy nga jóg sama diggante digganteeg moom yaay sëriñam waaye maa koy tarbiye ci yàlla maa yor tarbiye am ca yàlla yow nag àndal ak moom ci njekk mu ne soo ko joxee charte yi mu ne ah bëgg naa tarixa bi de waaye xam nga moo woon ne nii la diisee de Seydina Cheikh ne bàyyi ko mu dem dana nekk jullit bu wér waaye du doon sama taalibi xam nga kii maandu na yegg naa ceeg yow ba wax la ni keroog bi nga xamee ne Cheikh Sidi Ahmada tiijaan yi ñaari doomam yi mu jural boppam Cheikh Mamadul Kabir ak Cheikh Mamadul Habib mu woo leen ba ñëw mu ne leen maa leen jur di seen baay waaye su ngeen jëlul tariqa tiijaan bii bu ngeen nekk tiijaan waaye fi la fi la maandu yem ak honnêteté bañ demee ba réfléchir seen xel bëgg a jël tarixa bi ñëw ci moom daf leen ne mënoon naa leen ko jox waaye damay ragal du ngeen ko àttan matal àqi jur ak àqu taalibeeg sëriñ day diis rawati fi ma toll man seen baay kon dem leen ca seen baay Aliou Tamasini mu jox leen tarixa bi te lu ngeen soxlaati ci yàlla ngeen laaj ko kii tarixam bi wan na ne wane na ne <coughs> garanti na ko ndax bu ko neexoon yépp da koy centraliser ci boppam waaye doom yi nga jur sax nga yebal leen ci keneen mu jox leen tarixa bi yemu ca mu ne leen lu ngeen soxlaati ci yàlla dem leen ci moom waaye am na boo xam ne nag bañ ko bëggee ah li sëñ Mansour waxoon lañ def de la la la la eh, Aliou Tamasini def de am na loo xam ne bañ ko bëggee Aliou Tamasini daf leen ne mu ngi fi waaye pour pour mu mat nag dëgg dëggi mat na génne ci seen gémmiñ ñu bàyyi dem leen ca moom mu jox leen ko mooy ismulaay la azumil ne leen foofa lay matee waaye du ci man yor naa ko nag waaye man matuma ka mat mu nga noona kooku xàmmee na waaw xàmmee na waaye lu ñu la jox rek nga yore lex ne daa ko yeeyoo du noonu moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu churutu tariqaam bi chartu tariqaam bi ñaar fukk la ak ñett am na yu ma ci limoon yooyu mooy fondement bi boo ciy def benn rek gimal iyaazu billaay génn nga ci tarixa bi waxoon naa ko te dinaa ko leeralaat encore une fois mooy nga toog ba mu yàgg benn waaye toj sa bopp naan sa yuur ne la tariqa du dara nga ne banaa mm-hmm. gars yi dañ koy def tëj sa bopp naan sa yuuru nga génn naan waaw ne man xaw ma woon ne affaire yi ay xuraafaat la rek bàyyi naa yii seen caaxaan yi génn naa ci mm-hmm. wal iyaazu billahi day am nettali woon naa leen fii ci maam ab maam Ousmane Kan alaaji Ousmane Kan imaam Moussa Gueye xam na ko moo jur Kabir Kan Cheikh Ahmad Tidiane Kan benn professeur la woon duma ma tudd turam nekkoon Kaolack góor gi jox ko tarixa bi mu dem ñu toj bopp bi naan yóor gi mu génn ca yemu ca ànd ak ay xaritam ñëwaat ba ci góor gi fekk dañ ko affecté woon mu ñëw ba ci góor gi nuyu ko ne ko xàmmee woo ma mu ne ko déedéet mu ne ko góor gi xàmmee woo mu ne ko déedéet mu ne ko atam sàngam maa doon jàngalee fii ci école bi mu ne ko ah waaw man nga fi joxoon tarixe mu ne ko ah waaw waaw waaw noo def moom mbaa yaa ngi góorgóorlu mu ne ah góor gi yooyu ay xulaafaat la ba naa ko bu yàgg. Alaaji Usmaan kan moo dàqoon ci kaw suuf simplicité am woyofam piliyaanam la daan teg ci bunti zawye bi zawye boobu jàkka ji ca kaneen lew na kaneen piliyaan bi la daan teg jàkkaarloog tali bi ku ko gis sa yaram araamal na safara loolu la ci jublu woon. suba teel fa lay teg piliyaanam bi toog ba yor yor mu fatu waa ji ñëw wax wax wax wax ba yeggal mu ne ko ah ah doom mënoon ngaa am yar ak teggin bañ ma ko wax sax di yaag Seexu Tijaan la bu boobaa waaye man mi ngi ci dugal nag sa reewande la rek da ngaa reewu rek doom mënoon nga maa bañ a toroxal ndax maa la ko joxoon nga ne ba banaa ko seen xulaafaat yi kooku doom man ngay toroxal soo ko bàyyi woon sax te noppi yaa Cheikhu Tidiane la sama yoon newu si waaye kaay nag kaay ma wax la mu ñëw mu ne ko bawoo tarixa bi tarixa bee la ba mu ne ko sa xarit bii nga àndal bés sàngam picc gu weeru sa xarit bi dafa tukki woon laaj ko dëgg la diw mu ne ko mu ne ko du bés sàngam da ngaa tukki woon mu ne ko waaw mu ne ko bés boobu la ànd ak sa soxna ci sa biir néeg keroog la ko Seydina Cheikh génnee tarixa bi xarit bi xool ko mu xool ko mu ne ko jóg leen dem mu ne xaw ma fu muy mujj ak xaritam nag ñàkk teggin ah, ñàkk te teggin baaxul li ma maam ngóor topp imaam maam ngóor topp li muy fat la daan noon nettali ci sama conférence bi ne na waaja daa mokkal alxuraan nag baqara benn bu koy tari sax du ko xool mokkal ko rumbux nag comme fatiha di jàll ci géej gi diggante ngor ak fële ni ñu koy waxeeti ngor ak gore paa yi ne woon ci gaal gi nag mokkaluñu alxuraan gaal euh, mu ne booy bi fu mu toll paa foo toll ci alxuraan paa bi ne ko ah man de doom soriwu ma ci xam naa daal lu ma jullee am naa ko paa yëpp mu enquête leen fu ngeen toll ci alxuraan ah man de mokkal naa baqara be naa si yéen seen dund gi seen genn wàllu dund yëpp sànq ngeen ko mag ñu toll nii yéen jàngu leen dara ci alxuraan xas leen beñ ràpp <laughs> ay mag yi jëmm nga di leen xas ndax mokkal nga alxuraan xas leen bañ ràbb ah yéen seen genn wàllu dund yëpp sànq ngeen ko bay jaaw ba weex tàll mokkalu leen dara ci alxuraan lu dul falaxeeg naaseeg yu gàtt yi xas leen bañ ràbb rek waaye nekkete paa yëpp ay mool lañ ñu dem tuuti rek gaal gi yëngu bu ne nii beneen nii ne nii xale bi di lewetali bët di xulli bët paa ba ci gën a màgget ci paa yi ñëw ba ci moom ne ko doom ndax sa njàng mi boole woon nga ci feey mu ne ko déedéet paa bi lem mbub su mi mbub mi lem ko teg ko ci kaw bopp bi rek plongé feey ba sori ñëw feey la amuwaat ci gaal gi ne ko doom ñun ñëpp ay mool lañ ñun suñ génn wàll dund sanko woon waaye yow sa dund gi yëpp sanko na tey <laughs> <laughs> mu ne ko ñun suñ genn wàll dund moo sànku woon waaye yow nag doom sa dund gi yëpp sànku na tey xale bu ñàkk teggin ak xam-xamam yëpp ci ndox lay diig acca bàyyi ko ca gaal gaal gi diig ak moom waaye day wone ne nit loo mën a am na nga am yar am teggin noo mën a mel na nga am yar am teggin am orma waaw waaye bul wone dara ndax ndax ndax maa tiim nit ñi waa bokk na ci yi Seydina Cheikh gënoon a bañ waaw wane ne maa tiim nit ñi bokk na moo tax bul woy sëñ Hadi Touré wax ko sëñ wax ko Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ko waaw dem ko sax dem ko

waaw ku am li nga am ba mu xam xaaji ab doodu man li nga man ndax du doon ku maya aywa na leen yal na bur yàlla dolli ngaram waaw ci abdul aziz dolli waat ay mayam aywa donay mawdo jàngi di laa biire nit ñi ci diine akub afli ci xeewalam aywa na kenn dégul tey ma wax ay meloom bu kenn weddi ndax maa ko yar maa ko xam aywa sëriñ abudu day waare tey yeete tey tey defar ay ay bu loolu moo di gor si la bu dee waare day bëgg la tey jàqulool ku sàggan te doo gis mu xeebi di bu laay bu dee way yonent bi baatam ji bee da ngay wax ni moo daak sax ay xalam aywa tabaarakta yaa axsana alxaaliqiina ne leen baarakallaahu baaral nasa ma ngeen suma kon sëriñ si danoo doon wurus man damay wax ni Abdoulaye fi gis muy ngal ma ngeen sëriñ Abdoulaye ji su du xiiroo du kiiroo songoo ka tongo te doo gis mer gor du leewoo du feewoo mbi cooka mballoo du ngaayoo du jëlloo du gaaral def leen nii ni tam ñi ku tangam dadul tax mu bangam dafay jaamu yàlla di bi ñaanul fañaagul du kuy am dinay kii du kii suxul njëmbat ngi rot baakal gisuma fi kumbaandaani moom baa nga sàmmooni moom baa nga jaamooni xalifa bi xanaa musula xalifa bi fabul tànki màkka bul manke jàkka ngay fonki rakkaase oo waaji la saxal ci ku woyof loo bul dem di rëylu te bul woote maqaama kon doo ko am ngeen ni ku aw yoonu tiijaan du woote maqaama Amadu wooteek wilaaya su doonee ku xam ngeen bu fekkoon danga woote tey ak wilaaya ko nit wi gantal nga daldi waa ji tasax yoon wi xam ngeen ñeppay waliyoo wa diina ji sotol baaya del bay tawattuy golo te dogu dugub kon nga saagub musiba bi saxal ci ku woyofuloo bul dem di rëylu bul woote maaka xam ngeen ni ko aw yoonu tiijaan du wooteeg wilaaya du wooteeg maqaama bu dooneeku am ngeen ni sëriñ Abdu man yaa ma may montarak ak yeneen yafa yu rëy yooyu waa ji la walakin la ni xaamidun shaakirun saa su asu gor maye jaamu tam nay si Malick ne na ngeen seet cosaanal nit ba fan la bàyyi ko famil manintum naa rëyam la na koy waral alxaaji Abdou Aziz Sy Malick de na ngeen seet cosaanal nit ba xam fan la bàyyi ko fa min manin tum naa rëyam la na koy waral xanaa réera mawlaana al ali aji bind ji fa subhaana man fi mulki ma shaa faal na ngay wattu rëy hmm. ak gis sa bopp loolu jaaduwul alal xayri ndem ab jaam nga loola la xelluwul caalaaji abdoulaye si malik ne tawaada wàccal ci suuf waquddat tarfaan haadi dunaa bu ko defee tanal ku maa tax waawu yoon waa ngi dëgg demal sëñ Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy nee na ni leen laaj na lay def ba nekk ku baax xanaa mu teet bépp mbir moo xam ni day ayibal laabal xolam bëgg ñëpp lillaahi muxtasiban di jóg di jokk it ku ko dog fu mu toll tey ko bégal mm-hmm. yaatal dënnam te di muñ fu mu toll tey bañ a tooñ ku tooñ mu baal ko li wajillaayi tey rafetal teyit mu roy melo xayril xalqi shaafina kooko yonent Yàlla Muhammad sabran wa safan wa afwan nii ma wax la melal soo ni melee fa wa rabbul arsi yaa di ku baax bul tay bul yokki yoon waa ngi dëgg demal waykat yi way way dañuy tay bàyye doomu yaay sofeeto way nanum ataaye gisu naa ni way wi tabul xaaji may yee nañoo farwe kon fa yaa rabbi sallim alal mustafa ñu gëm ay waxam teg ci roy ay jëfe xam na <clears throat> xam naa ne yàlla rek a mën ñuy waxtaanee Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi yéen seen avant première bi ci dabaax baax na kat anniversaire am le 14 anniversaire u deseem altine jàmm la incha allah kon Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi mu ngi noonu waxoon naa ne léppam xajul sax ci téeméeri émission waaye yii doy na sëkk ma baamuwaat ko nag door a dugg ci charte yi nga xam ne joxoon na ko rasulullahi rasulullahi door koy jox charte yi ca kat la daloon yonent bee ko dal de yonent bi ba mu demee xadara ca kaw yàlla di ko jox julli lu mu waxoon ataxiyaatu lillaahi azakiyaatu lillaahi altayibaatu salawaatu lillahi assalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu aleyna ñu newuñu fa woon waaye mu yóbbaale ñu géew Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi moom xam nga ñàkkal ñan la njëkk a defal demande demand arab mooy wax demand tubaab mooy wax demand ñim ko njëkk a defal mooy ñi nga xam ne duñ ay taalibeem foofu laay njëkkee ñi nga xam ne duñ ay taalibeem ñoom la njëkk a del ci kanami yonent bi loolu rek wane na mustawa hmm? ñoom la njëkk a del ba yonent bi ne ko waaw mu door ko wax nag samay samay taalibe ñoom lii laa bëgg ñu am yonent bi ne ko waaw yooyu laay indi si moo tax tarixa bi du ay caaxaan du ay caaxaan ma profitoo ci turu yàlla yëpp baax na ndax turu yàlla lañ wax kenn waxul turu seytaane waa damay laaj yàlla baax na wala baaxul ah la daloon njaago ba de sama mbokk njaago bi la ko daloon doom ju mu am mu faatu doom ju mu am mu ñu faatu ñu ne ko da koy tuddee kii euh, ni nga ko euh, Muhammad wala Abdullahi mu ne defuma ko du ma ko def jegaan sama mbokk yaay la woon boobu waaw séeréer waaye yow koo am tuddee jegaan mu faatu te nga def mos abdullahi abdul mot abdul mu ne defuma ko ki ngay tuddee say mbokk mu di ko rey boo ko tuddee boppam mu rey ko <laughs> mu ne abdu wantewu ci dara ah dara laa ci abdu wantewu bu jegaan rek bu nekkee jegaan mu dund bu baax na bu nekkee jegaan dundut baax na waaye jegaan rek <laughs> mbokk ma nag dem aji màkka moom bàyyi ko fa ndax daa gëm màkk daa gëm yàlla dem aji moom ndeysaan dem màkka na bokk ci ña fa faatu mu ne bettu ma woon ki lay fekk ci sa biir néeg rey la nga dem ba ca néegam xam nga ne doo rëcc <laughs> mu ki lay fekk ci ki lay fekk ci sa biir néeg rey la nga dem ba ci néegam doo rëcc <laughs> <laughs> ah foofu la ngëmam toll loo ci mën dara nga ci mënut moo tax Seydina Cheikh ku yéeme la ah ku yéeme la gis nga boo xesee jàpp tarixa tiijaan yow mi jàpp tarixa bi boo xesee jàpp tarixa tiijaan pour nga noppalu tur yàlla woo mën a ut ci àddina utal baax na ndax turu yàlla lañ wax tur yàlla yëpp baax na mën na laa may lu ne waaye billaahi tur boo ci jàpp ne mu moo gën tarixa bi doo jëriñu ci tarixa bi doo jëriñu ci tur wi boo xesee jàpp tarixa tiijaan bii tur wuñ la mën a jox nga gën ne tur woowu moo ëpp doole tarixa bi doo jëriñu ci tur wi doo ñooti ci tarixa bi fekk del si woowu gannaaw xam nga lu tax turu yàlla bu mën a doon ci àddina ismullahi alazamil kabir moo ko féetee kaw al ba Seydina Cheikh bindoon suul ko ca zawiyam ba Cheikh Umar bind ko jox ko Seydi Alhaaji Malik mu wan na ko ci maam jaaree ko ci maam alfa tur woowa moo gën a rëy ci turu yàlla yi moom la ñëpp di xool moom la ñëpp di seet waaye du ñëpp ko mën a am te nit dina ko am dem jahannama kon lan la turu nit dina ko yor dugg safara ndax kenn du ci ñaan àddina kenn du ci ñaan àllaaxira boo ci ñaanee àddina alku boo ci ñaanee àllaaxira alku dañ koy jaamoo yàlla boo ci ñaan àddina alku boo ci ñaan àllaaxira alku moo la jël ñëpp nit ñi xamuñ ko balaam ibnu baawara balaam ibnu baawara ca yonent yàlla Muusaa la tombeeloon Moussa moo tax mu bari ci alquran Moussa Moussa musa moom la tombeeloon Balaam ibnu Baawara yoroon na tur wa ndax bu mosaan gàkk tur wi lay tudd ñu ubbil ko asamaan mu jàkkaarloog lawhul mahfuz xool li soxla wax ñu tëjaatal ko ba yoon ci yàlla Moussa di ñëw ci dëkk bi mu newoon gaa yi seet si ko ne ko bu mu ñëw mu ñëwee daf koy eh, islamisé te ñun ñii ñuy dundee neex nañu ñaanal yàlla bu mu yegg mu ne kooku ab yonent la lu ma am daraja mënuma koo ñaan yàlla waaye xam nga rek corruption jógu fi de mosu fee jóg gars indil ko alal ju bari ne ko ñaanal bu mu ñëw mu ne mënuma ko ñu ne ko kon yow xamoo dara commencé di ko tuutal waaye faalewu leen ñu dem nag seet ndaw si daq ci dëkk bi li ma la doon wax nisaa yi sóoratu nisaa yi ñu seet ndaw si dàq ci dëkk bi boole kook alal ju dul jeex indil ko ne ko sa wilaaya gi booy ñaan du ñëw ñun waxuñ la mu dee waaye bu mu dugg si ci dëkk bi te yoon ci yàlla Moussa yàlla nee na ko demal ndax ñu dugg ci diine ji faw mu ñëw bala am ne leen ah aca leen ñu dem fa may ñaane ñu dem ba ci montagne ba gaa yi wërut ko ci suuf mu yéeg ci kaw montagne bi tàllal loxoom tudd tur wi dara ubbeekuwul mu ñëg di ñaan bëgg a wax yàlla yal na nga alak yonent yàlla Moussa ak ñi ma àndal di ñëw mu ne yàlla yal na nga alak Balaam ibnu Baawara ak ñi àndal gaa yi naan ko waxuñ la loolu déggatu leen yàlla dindi dégg ci noppam yi bem set wecc déggatu leen dindi dégg ci noppam déggatul moo tax Serigne Cheikh ne yàlla bu la nammee alag hmm. du uti dara pour alagee la ko day seet la la doon teral mu fexe ba mu teddadil la <laughs> non Serigne Cheikh du nit aarif billahi kaamil la Serigne Cheikh Tidiane Sy Al mu ne yàlla bu la nammee alag du seeti lu lay alag mu ne day fexe ba li la doon teral mu teddadil la te mën na ko. non Serigne te ak ay dëgg laa ilaha illallah ah gisu leen gaa yi ci nguur yi nguur a leen di teral teral bi xëy tedd dil borom xaalis di tedd ba mu xëy rek alku ci xaalisam ah, jeex na moo tax laa lay Cerno Seydou Nourou doon wax rek yàlla suureen rek jeex na sutura rek sutura bal am nang fay fay nag mënatu la taxaw làmmeñu yàlla bàyyi ko muy dem comme comme noonu gars yi di jaay ci marché yi du ngeen koy dégg ñaar dërëm ñetti dërëm ñeent dërëm juróomi dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm ñeent dërëm juróomi dërëm xam nga <laughs> gis nga loo digg rek boo amee cër ci yàlla di ko mën a taawin man saa yu ma leen rombee rek bala am la sama xel mi di daj xam nga rajo la da ngay foog ne waajee koy wax fekk waa ji da koo enregistré bàyyi ko ci nag muy daw mu naan ñaar dërëm ñetti dërëm ñeenti dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm ñeenti dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm ñeenti dërëm loo ci mën bal am mënatu la stoppé gars naan ko waxuñ la loolu mu naan yàlla yàlla na nga yàlla na bal am ibnu baawara ak ñi mu àndal rek gaa ya fa bàyyi ko fa fa la ko yoon ci yàlla Moussa fekk rey ko moom la njëkk a rey maata kaafiran dee ci yéefar te nekkoon ba yor ismulaahil azamil kabir dee ci kéeféer daf ca ñaan àddina te yàlla kenn du ko ci ñaan àddina kookoy premier kuñ kuñ xam ku yor ismalaay lazamil kabir day ci kéeféer al ko bi moo yont yàlla Moussa ñoo tombeeloon benn tey inna xaaruuna kaana xaw mi Muusa fa baxee na boobu di doomu ndey yont yàlla Moussa seen ñaari yaay yee bokk ndey ak baay yoroon na tur wa sàccee ko ci yont yàlla Moussa waxoon naa la ko fi ca waxtaan ya maa inna mafatihahu la tanuu bil usbati ulul quwa iz qaala lahu qawmuhu laa tafrax inna allaha laa yuhibu alfarixin wabtaxi fi ma aataaka allahu daara al axira waaye nag wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin kama ahsana allahu ilayk mu lànk fu mu mujj tamannaw bil amsi gars yi bu ñu lay jëy yow la yow la yow la ba nga dugg ñu rocceeku alxuraan na ko nettali de ña ko doon jëy ñoo mujj naan yaa layta la ay ñoo ko doon jëy bu ma saan fa lamma xaraja ila qawmi min zinatihi ila qawmi qaalu yaa layta lana misla qaaruun innahu la zu xazin azim waaye keroog ba ko yàlla di àllak ba mu ba pare gaa yi dañ taxaw naan yii ndekete woo buñ ko toppoon mel ni moom ndax bu masaan génn nag mbubbu or yi rek gars yi takki ni ñëpp tiit ndax mbubbi or rek la daan sol ñëpp naan ay waay yaa layta naa yaa layta la naa yàllante woon ñu mel ni xaaroon innahu li mbir tey mbir li wér te wóor mooy la zu xazin borom cër la borom wilaaya la azim bu mag waaye moom it mu ñaan yoon ci yàlla Muusa yàlla alak ko fa xazafa fa xazafa bihi al wa bi daarihi moo këram yépp la suuf wan na beewte moom mbeew ko ko indil sax yoon ci yàlla Moussa accepté na woon càcc ga accepté woon na ko ba wéyal tur yi waaye yàlla lank ni yàlla lanke mooy nii ci yàlla Moussa yor tur wi mu yor daraja ji te kenn du ko tudd <laughs> moo yor xaalis bi te kenn du ko tudd yonent yàlla Moussa amul lum ndikki te ku xëy moom ngay tudd ci moom ngay jubali gis nga yàlla ni muy organiser alaaji male ci yàlla Moussa yorul lu suukar kafe ndax sañu ko te ku xëy rek Moussa ngay jubali affaire bi métti ko te moom mooy milliardaire bi mbubbi woor la am dalli or la am mbaxanaam or la am bu génnee gaa yi dar ko te kenn du ko ne salaamaaleykum mu mer woo benn jigéen fey ko xaalis bu bari ni bala am niñ defoon bala am ay jigéen fay ko xaalis bu bari ne ko damay invité yontu yàlla Moussa benn ngan su ñëwee nga toroxalal ma ko soxlaw ma ci moom dara lu dul rek nga taxaw ne maag moom mu ngi fii di leen waar te maag moom ñoo fanaan démb ba bër set lu bon lu ne def nañ ko maag moom ba ëmb bii sax ci laa ko jëlee dégg nga xam ndaw si ne ko ah loolu dana ma diis mu ne ko xanaa bëggoo alal ma def la milliardaire def sa mbokk yëpp milliardaire ndaw si ne ko d'accord na te boobu ëmb bu ndaw la yor te xamul ku ko ëmbal moom ab yonent ku ko woo mu wuyu la mu invité ko benn réception defar lu ne yoon ci yàlla Moussa ñëw toog biñ lekkee ba pare mu ne ndaw si jógal xaaru na ne ndaw si jógal moo tax alaaji Ousmane Guèye moo jur imam Moussa Guèye moo ne foo fekk soxu njël mooy balu fete lu njël mu ne ku lebaloon njekk lañu di ko fayee njekk di mu ne balu fetalu njël foo ko digg ku leble woon njekk la ñu di ko fayee jekk di Cheikh Alhaji Abdul Aziz ak Alhaji Habib Sy rahmatullah alayhi wa radi anhuma ñoo daan wax ne ku rey say noon say mbokk jeex ak dëgg mu ne ku rey say noon say mbokk jeex Alhaji Abdou yegg ci bene mujjug jamono ñu ñi gën ñooy jur ñi yées mu ne mujjug jamono ñi gën ñooy jur ñi yées sëñ Abdu yàllaa ko may ndaw si jóg taxaw mu ne ko waxal ci Moussa loo xam ci moom yonent yàlla Moussa tiit du tiit waxin la yonentu du tiit laa taxaf ba ko yàlla waxoon na tax bul tiit mu ne ko Moussa xaaru na xool ko mu ne ko Moussa Xaaruun ne ko waxal yow ñëpp yow la ñuy déglu mu ne maa àllahi daf maa fay rek pour ma wax waaye du dëgg seetal ni ko yàlla toroxale ak alalam yépp ëmb bii de xaw ma ku ma ëmbal waaye du yow de Moussa ndax man tey laa lay door a gis daf ma fay xaalis rek ne naa ko wax waaye du dëgg de man dey xamuma la maa ngi lay door a gis rek yoon ci yàlla Moussa mer jóg rek fekk ndaw si joxoñ joxoñ kook baaraam ya xam nga loxo ba la ko ci yàlla defaloon bu ko génnee muy jant bu ko dugalee muy weer mu joxoñ ndaw si ci biir joxoñ biiru ndaw si ne ko ku li nga ëmb mu ne ko diw ca dëkk sàngam moo ma jur mu ne képp ku ànd ak yàlla ak Muusa ñëweel fii képp ku ànd ak Xaaruun ak alalam taxawal ca moom gaa yi taxaw mu ne suuf wannal ma Xaaruun yàlla ne ko jox naa suuf disposition yépp suuf di ko wan na ba ci doojoor yi mu tiit ne ko sama doomu ndey baal ma dama juum yoon ci yàlla Muusa ne ko suuf defal li ma la sant bi mu ko wannee ba ci oom yi rek gars yi nag commencé di écarté wu naan hmm, balaa ñu cee bokk wallaay xaaral ñii gëmuñ sax yonent yàlla Moussa waaye xam nañ ne mbir mi dëgg la léegi ñu ngay daw ñoom mooy buñ la fi ruuxee ba nga dugg ñu daw seen responsabilité bàyyi la ci biir moo xew ana ñu àndoon ak IBK di ko ruux àndoon ana ñu àndoon ak président Wade di ko ruux ana ni àndoon ak Abdou Aziz bii Mauritanie fan yii yëpp mu ngi jooy mu ngi jooy jooy yu métti naan ñi ma doon jeey ñëpp gisatuma leen ma ne ko doo gis kenn lem ja jeex na kaani gee fi des maqal sa kaani te ne muut dina ko maqate ba toxoñoo ko gars yi écarté wu bàyyi yoon ci yàlla Moussa ak Xaaroon différence am ak yonent bi foofu nga koy gis foofu différence yoonu ci yàlla Muusa li lay wan ne yonent bee ko gën foofu nga koy xamee ba yonent bi tolloo foofu benn suraqatu ca fas wa fu suuf ma suraqatu daf ko mujj baal <laughs> benn minute waxtu weey na sax foofu suraqatu yonent bi daf ko mujj baal mu mujj tuub yonent yàlla Muusa xaaroona yuuxu bi suuf si see ci óomam sama doomu ndey baal ma dinaa ko tuub mu ne suuf boo deful li ma la sant ma punir la yow yonent am doole te billaahi daf doon punir suuf mu ne ko ci sama ndigalu borom ngay wéy tey te man la yàlla jox ordre ci yow maay sa chef defal li ma la sant mu war na ko ba ci ndigg li mu ne ko ay sama doomu ndey xanaa dooma def nii xoolal liñ bokk ma ak yow yonent yàlla Musaa dégluwu ko sax suuf nal ma ko mu wan na ko ba ci baat fii xam nga foofu yërmande waroon naa daw mu di ko xool Moussa su ñaari ndey yee bokk benn ndey maag ndey ak bàyyi maag yow Moussa bu ma def nii li ma la def jaru ko baal ma mu ne ko suuf wannal ma ko laa wax suuf wan na ko ba jeex mu ne ko bu mu jeex mukk fekk bés peñ ci taxawul xam nga punition bi dara gën ko metti te làmmiñ wu rëyee ko ko yóbbi Serigne Cheikh Tidiane si nee na forte gueule foo ko fekk mooy njëkk a dee tuumaal gor hmm? suuf won na ko yonent bi ñëw ne sallallahu alayhi keroog bi ko suuf wonnee xaaroon mu ne ba bés pénc ñaanu yonent yàlla Moussa ba yàlla nangu na ko bés bu set suuf dana ko wan lu toll ni taxawaayu doomu aadama te du jot juróom-ñaari suuf te mbugal ma koy fekk di ko fa fekk en plus ba léegi fii may wax chaque jour suuf dana ko wann lu toll ni mesure taxawaayu nit ba bés peñ ci taxaw xoolal kañ la woon moo tax ab yonent kenn du ko tooñ te dara du ko ca fekk gaa yi dawoon nag ñëw ci yonent yàlla Musaa naan moo na ko ñeek alal ji rek a tax mu def ko nii toroxal ko alal ji rek la bëgg a jël yàlla déy ko yonent yàlla Moussa ne ko ñu ngi dul mandat de boo fi bàyyee alal ji rek tuuma topp la mu ne wabi daari yi këram yëpp fu këram nekk ci àddina bi rek na ko suuf wan na ak alalam këram yëpp fiñ ne ci àddina bi rek tremblement de ter am fa kër yëpp ne malab ma malab alal ju mu amoon yëpp demaale ci biir mu ne soxlawuma alalam ñu gàttal la ma lay wan ne gis nga tur woowa nag jommaloon ñépp te ku ko am def ca lu la neex maanaam ña ko ca defoon ba al ko tur woowa Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi nee na jëmmi tur wa renforcé nañ ko jox ko rasulullahi rasulullahi renforcé ko jox ma ko ma def ko ci sama biir tariqa bi mu ne ku laazim wird nga ko ku wasifa wérd nga ko ku xadara wérd nga ko te doo alku ndax maa la garanti moo tax ma ne la tur wala nit mën a jox ci kaw suuf nga jàpp ne tur woowu moo ëpp doole tarixa bi doo jëriñu ci tur wa doo jëriñu ci tarixa bi ki la gën a mën a jëriñu ci tarixa bi jëriñu ci yàlla gannaaw bi mu jàppee tarixa bi mooy ki fonk charte tarixa bi bu dee góor julli ca mbooloom jàkka ja wasifa ca mbooloom jàkka ja xadara ca mbooloom jàkka ja waxtu yi juróom julli waxtu yi juróom xadara bu mu ko manqué wasifa ci mbooloo bu mu ko manqué moo tax du jeex tey xëy na ma def ko sept parti muy suñ set jawhara yi cinq laa waxoon waaye du ci xaj bi cinq quatorze yi rek bu ma koy lim rek boo moytuwul sax du jeex set partie euh, ni koy waxee waxeeti gis nga laazim bi ay waay nit ñi xamuñu la xew lu nit soxla ci àddina ak àllaaxira bi nga jàppee tarixa bi mu ngi ci laazim bi mu ci wazifa bi mu ngi ci xadratul juma te ku ñuy fal ci tarixa bi bésu àjjuma lañ lay fal te ci malaanu xadratul juma lañ lay fale ku ñuy folli ci tariqa bi it wal iyaazu billaahi bésu àjjuma lañ lay folli te ci malaan mi lañ lay folli waaw mu des ñu ne bu fa newut nag ci malaan ma ñu ne ak fu mën a nekk fa la ko martaba bi di fekk tapp bi wala tepp bi buñ ko koy tappal bu ko fekkoon ca marché ba dañ naan daf daan teewe daf daan teewe tey ngant tax ñu fekk ko ca marché ba nam fekkee woon sax noonu ca àll ba tappal la garaat bi nga yéeg moo tax ñu ne taalibe tijaan fu mu toll nay am njàpp ndax affaire bi mën na ñëw saa su ne te bu ñëwee fekk yoroo njàpp rek da ngay dof wala nga dee bu fekkee kuy sàgganee tariixa bi da di def yu ko neex ak yu ko kii buñ koy folli it fu mu mën a fekk fa lañ koy fekk folli ko day xëy rek ne yaa ngi dootul mën dara bu waxee kenn du ko wuyu neex naa dégg président Wade bi am na ñoo xam ne bi mu leen di nommé ci car rapide la leen fekk fii dëgg la walla dëgg ci rajo car rapide bi lañ déggee ne nommé nañ leen ministre jeex na <laughs> waaw ndax moom dala daan bett danga say mbokk lay woon ne yow déggoo rajo bi président nommé na la fekk yaa ngi ci car rapide bi wala yaa ngi ci Ndiaga bi wala yaa ngi ci taxi ah waaw kay. ñam ñoo xam ne Dakar dem dikk la leen fekkoon ñu nomee leen waaw noonu la ko Seydina Cheikh di defee bu lay nomee fu mu la fekk rek martaba bi tapp ci yow waaw yaalamu mustaqaraha mustawdaaha lu tax kullun fi kitaabin mubin mhm. moo tax nag Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ne nañ fonk tariqa bi biñ ko jàppee ba noppi taalibe Tijaan na miin malaanum wadifa te respecté ko booy laazim nga jox ko àq bi mu laaj toog nii ma toogee boo ko mënee soo amee juróom fukki at muy cinquante ans may nañu la nag nga ferenkulaay waaye du teggin boo ko defee dara amu ci waaye du teggin de bokkul ci teggin yi nii mooy teggin fekk yaa ngi koy mën nga yor sa kurus ci sa loxo ndeyjoor teg sa loxo càmmoñ bi ci sa lup tëj say bët tuuti waxuñ la nga gëmm danga koy tëj tuuti commencé lazim ci teey ndax la tax boo demee lii may wax nag boo demee ca faakihatu tulaab cheikhul xaaji malik seydil xaaji malik mu ngi ko fay wax mu ne nga ne tekk mel ni muus muy tëru janax pour jàpp ko xam na mu naan tekk réglé cër ya am na ñu koy wax wax waxin wu bees la régleel say cër waxin wu bees la léegi Eh, orientel say cër te régler say cër mais ak ay dëgg ak ay dëgg foo mën a nekk yow taalibe cheikh orientel say cër te régler say cër laazim laazim bu tey tëj sa bët bañ a xool ba pare ndax leeru biti bi boo gëmmee day jaxasoog leeru biir bi waaye booy xool leeru biir bee fay ne leeru biti bi du dugg gis nga boo tëjee sa bët yi nii da koy xam ci nga koy xam gis nga boo tëjee sa bët day mel ni dafa am yooyu gis yooyu lañuy ñuy wax xiyaaliyaat léeg sax mu mel ni ay niir yuy wàcc gis nga yooyu nag boo ci yàggee dëgg-dëgg ànd ak teewlu ci ngay yéeg ci nga demee nag bay gis yàqazatan waaye booy laasim nii di xool di weleex weleexi rek fu war lawati nag seetaan télé bu biit bi demee bay waaj dugg wala yaa ngi ca film ba tey yaa ngi laazim loolu laazim loolu laazim nañ waxante dëgg yow daal yaa ngi laazim waaye yaa ngi fépp. Cheikh Mamadou Al Ghali mii nga xam ne moom lay wax si mooy ndonol Cheikh Seydi Ahmad Tidiane mu bàyyi ko fi mu yilif ñaari doomam Mamadou Al Kabir ak Mamadou Al Habib te ñooñu boobu neexuñu yilif de dinaa ci ñëw mu ngi fi boobu bokk nañ ci aqtaab yi ñaari doomam yooyu neexu ño yilif de ba pare nag di deretu Cheikh Seydi Ahmad Tidiane mu jur leen mu baasaratan waaye Cheikh Mamadou Al Ghali yilif leen xam nga fii la démocratie yam xam nga tarixa bi opposant yi ak pouvoir waral na ñu jàng tarixa bi dinañ mën a gouverner kii gouverner kii opposé opposé te jàmm rek di am diggante Cheikh Mouhamadoul Ghali ak ñaari doomam yi yu ñaari doomu Seydina Cheikh yi rek mën nga ci def pouvoir ak opposition kon booy laazim dañ bëgg nga tëj sa bët bañ a xool ndax boo xoolee rek yaa ngi gis lu ne boo tëjee sa bët nag mag ci nga ci gis lu ne waxoon naa ko soo laazimee ba noppi nag nga door a ubbi sa bët ñaan boo amul benn ngant nga toog fa 30 minutes leer gi wàcc ci sa kaw nga door a jóg dem ndax booy sikkar dafa am liaison buy dox sa digganteeg asamaan waa asamaan dafa am leer yu ñuy wàccee di la ko jox leer yooyu moo lay nàndal soo jógee dem nag danañ wàcc waaye fa nga toogoon la ñuy wàcc waxoon naa leen ko fi am na benn wali yu boo xam ne moom daawul sikkar daaw du def dara day ñëw ëkk kuy sikkar rek mu toog di la xool boo sikkaree jóg dem rek mu ñëw toog fi nga toogoon ba yi wàcc ci kaw mu dem seeti ku mel ni yow def noonu bëgguñu it boo sikkaree ba noppi ci saa si nga naan ndox mu sedd wala ndoxu robinet bu mu mën a doon bu dee attaaye may nañ la ko bu dee kafe may nañ la ko waaye ndox mayuñ la ko ndax day fay leer gi après trente minutes loolu la Cheikhul Hadji Malick wax jëlee ko ci sëriñam Cheikh Umar ba ca Cheikh Sidi Ahmad Tidiane moo tax ma wax bu gaaw ndax bii di ñëw ak ba ca topp buñ set parties laa koy def incha allah am na ku ma ko waxoon dama ne ko du ma ko def sept parties cinq laa koy def waaye yeey na ma boo demee làmmeñam waa tax eey eh, eh, waay Seydina Cheikh radiallahu taala mbaax gi rek moo lay moo lay moo lay yéem ak lewet gi hayba bi ko yàlla joxoon bu nee tël ñépp fatu ji buy génn sax nit ñi di daw mu ne lan la inni basharun mislukum nit laa comme yéen lan la lan la raj raj ji di lu ko waral Cheikh Momadou Xaali ne ko xam nga ko li ne ci yow te newul ci ñun li ne ci yow te newul ci ñun moo war a raj raj gi moo tax Cheikh Seydi Ahmada Tidiane ma lim fukk ak ñeent yooyu ñu yem ci mu jël xam nga alxuraan ji laay jël lim jël laay jël waaye cinq jot na dix jot na ma jël fukk ak ñeent yi nga xam ne moom la Seydina Cheikh njëkk a def demande jëme ko ci yonent bi te ñooñu sallallahu alayhi wasallam te ñooñu duñu ay taalibe mën nañu nekk ci yeneen tariixa sax ba ca jiitu yow mi may déglu jàppal numéro un Seydina Cheikh nee na képp koo xam ne kontoroo ma man nee na képp koo xam ne du taalibeem waaye contre ko kon ku contre génn nga nee na képp koo xam ne doo sama taalibe waaye kontoroo ma boole naa la ci mu ne képp koo xam ne doo sama taalibe waaye xaritoo nga ak sama taalibe boole naa la ci leer na ku xaritoog taalibe tiijaan wala ku sopp Cheikh Sidi Ahmad tiijaan yi te doo tiijaan nee na yi nee na yi yow laa ko dig ñu déglu nag lii ku iñaan mënu ko de bi njëkk nee na kooku maa ko garanti ne dana dee ci liimaan boobu rek doyoon na xanaa laa jimale ah, ah da nga woyefal dee ci liimaan balaam ibnu baawara bi ma la tudd a ngi ni xaaroona mi àndoon ak yonent yàlla Muusaa ngi noonu bari na ku dund ci lislaam ba dara desul lu du dee mu weddi dem safara moo tax Babacar sa turandoo sëñ Babacar ok ah, moo tax Seydina Cheikh xool étape ba ci gën a am solo mu tudd ko mu ne ko maa mu ne maa ko warlul mawtu alal liimaan yi dee ci liimaan ki du taalibe Tijaan boobay premier ba ca topp mu ne maa ko warlul ne sukuraat bu métti du ko dal bu woyof lañ koy teg boo xam ne day gëmmentu rek dem du xam jalti jalti dee num toll nee na boobu maa ko ko gàddul ne yonent bi danga koy gàddu ma door a nangu yonent bi ne ko nangu na mu ne beneen bi ci topp day am sécurité ci bàmmeel Nakiir rek Munkar duñ ko laaj duñ ko fitnaal ci bàmmeel yonent bi ne ko d'accord na mu ne beneen bi tamit xam nga kenn du ko mbugal buñ dekkee xam nga mën nañ la bañ a mbugal ci bàmmeel te mbugal la buñ dekkee yépp la Seydina Cheikh fatt mu ne kenn du ko mbugalit buñ dekkee ëllëg yonent bi ne ko d'accord na mu ne ko balaay dee it yàlla daf koy jéggal bàkkaanam yépp maa taqaddama min zanbihi wa maa taaxar yam jiital ak yi mujjee yëpp yàlla da ko koy baal mu ne ko d'accord na ah ñu neex na bépp di te yow danga nga boxam caaf rek yéeyoo <laughs> ah lii neexut yow boxam rek nga ci am boxam yéeyoo boxam rek lii yëpp nga am ko ci ah mu ne beneen bi ci topp buy jéggi siraat day gaaw bay day laajte moom est-ce siraat am na yonent bi ne ko nangu na ah bii du taalibe tijaan de ki dul taalibe tijaan laay wax de te sopp dina Cheikh wala xaritoog taalibe tijaan mu ne beneen bi boobay juróom-benneel bi juróom waaw ñooy mooy juróom-benneel nee na yàlla du ko mbugal ba ba muy dugg àjjana quarante bureau yëpp yàlla du ko fi mbugal fen yonent bi ne ko d'accord na mbaa mbaa yàggul rek fi mu baaxee woon fi mu yàqoo waaw waaw ma ma dellu ginnaaw tuuti ma dellu ginnaaw tuuti Seydina Cheikh nee na premier point bi mooy day dee ci liimaan deuxième bi dañ koy woyofalal sukuraatu dee du ko yëg day mel ni kuy gëmmentu troisième dañ koy ay day am sécurité ci biir bàmmeel kenn du ko mbugal quatrième bi nee na yàlla du ko mbugal mukk ba ba muy dugg àjjana cinquième mu ne suñ borom da koy jéggal mboolem bàkkaar bu mu amoon bu jiitu ak bu mujj bu jiitu ak bu mujj yépp la ko yàlla di jéggal boobooy juróomeel bi mu ne ko d'accord na mu ne ko buy jéggi ëllëg buy dugg euh, wayu jaawizu lahu waaw kañ déedéet sixième bi heureusement ma delluwaatee gannaaw sixième bi mooy àq yi nga xam ne daf ko yoraloon ay mbokkam ak i moromam yëpp yonent bi daf ko koy fayal àq yi mu yoroon digganteem ak jaami yàlla yëpp yonent bi daf ko koy fayal mu ne ko d'accord na ndax sama compte attan na ko mu ne ko beneen bi ci des mooy septième bi foofu laa toll woon kenn du ko mbugal buy dugg àjjana du bokk ca ñi ñuy mbugal balaa dugg àjjana huitième bi mu ne yowmal xiyaam taxawaay ba ci boppam bu mu ci bokk bu mu ko yëg yonent bi ne ko d'accord na mu ne buy jéggi siraat na yéeg ci mbaggu malaaka yi ñu jéggale ko siraat waaye bu mu bu mu jaar nii ñeneen ñi di jaare yonent bi ne ko d'accord na mu ne na bokk ëllëg moom moomu ci ñi yonent bi di jox ci loxol boppam kaasu meew ñu naan ko door a dugg àjjana ca bernde ya mu ne ko d'accord na ah lii neex na bépp di hmm. mu ne beneen bi ci des na dugg àjjana te kenn bu mu ko réglé ci dara bu ko kenn réglé mu ne ko d'accord na mu ne ko beneen ba pare nag kenn bu mu ko regle waaye na bokk ci premier group bi xam nga séddale ca kudd yi njëkk ya Seydina Cheikh ne na bokk ca <laughs> premier groupe ba premier group bi njëkk a dugg àjjana mu ne ko sa kii sopp ma rek wala xaritoog sama taalibe na bokk ci premier ba yonent bi ne ko d'accord na mu ne bu duggee àjjana it buñ ko ber na bokk ak àjjana ma al wal mursalina wal awliyaa yi ah, Seydina Cheikh moo rëy cër na bokk ak àjjana anbiyaa yi ak mursal aw awliyaa ñu nekk ca firdawsi ak shuhadaa u yeeg saalihiin yi xam nga fu mu ko jëlee ulaika alladina an'ama allahu alayhim hmm? min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihiina beneen bi mu ne ulaika ma alladina an'ama allahu bokkuñ de ñaar la ma alladina mooy bii nag ma alladina an'ama allahu alayhim min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihiina moo tax mu ne wa xasuna yàlla mën a wax xasuna ulaayika rafiqan mu ne ko bu mu dugg àjjana di fa wéet de àjjana sax xam nga mooy li ma doon wax boo ko yéenewut kenn bo bokk ko yow kese sax da ngay wéet waaye Seydina Cheikh dafa ne bu duggee àjjana na ko bokk ak anbiya yi ak mul awli mursal yi ak awliya yi ca firdaws ak shuhada yi ak saalihiin yi yonent bi ne ko d'accord naa ah mooy douzième treizième nee na képp ku bëgg sama taalibe man Seydina Cheikh yuhibbuhu dana ko bëgg rasulullahi yonent yàlla bi taalibe tiijan xamul boppam Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi ne nee na man yuhibbu man képp koo xam ne yuhibbu bëgg na talaamiisu Tidiane yi te la taalibe tiijaan nga bëgg ko mu ne yuhibbuhu dana ko bëgg ci saa si sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa kaana dana nekkit tey bokk min hisbihi ci kuréelu yonent bi wa ahluhu ak fameem xaas ñi nga xam ne yonent bi dafa ne ñii moom maa leen jagoo ca lay bokk sallallahu alayhi wa boobay treizième quatorzième nee na képp koo xam ne doo taalibe tiijaan waaye bëgg nga ma wala nga bëgg sama taalibe ba xaritoog moom mu ne laa yamutu doo dee mukk illaa lu dul yakuna danga nga nekk waliyan di waliyu min awliyaa illahi taala bokk ci waliyu yàlla yu mag yi wa yaalamuhu mu da danga koy xam xam nga nit dina xam ne wali yi la te xamoo ko waaw dégg nga waaw kañ <laughs> dégg nga ci la bokk baax na Cheikh Seydi Ahmada tiijaan yi nee na ku ma sopp man Seydina Cheikh wala nga sopp taalibe tiijaan bi nga xam ne sama taalibe la man Seydina Cheikh mu ne na la wóor ne doo dee lu dul di nekk waliyu bokk ci waliyu yàlla yi mu ne waaye doo nekk waliyu bu nekk waliyu te doo ko xam mu ne dangay xam sa wilaaya xam ne yow waliyu nga door a dugg bàmmeel waaw fukki yi ak ñeent jarul sax sopp rek taali bi moo tax Seydul Xaaji Malik radiallahu taala anhu Alaaji Aziz ne daf daan wax ne su ma yëgoon tarixa bi duma ko jël damay sopp rek waaw xoolal sopp ci nga amee lii sopp sopp rek ci nga am ni ki ne dagañ nag koo koy ñëw bii di ñëw waaw ki ne dagañ kooku moo am lu ëpp li kii am ah bokkuñu rek kooku it fukk ak ñeent la ko yonent la Seydina Cheikh def demande ci yonent bi ba yonent bi ne ko d'accord na mu yonent bi nag door ko joxit nag moom ne ko may nag bi ma lay garanti samay chart lay jox sa taalibe yi suñ ko nangoo ñoom it nga jox leen ma it ma def li ma waxoon xam nga noo koy déggee li tax mu njëkk a def nii ku ma gën a yab ca kër ga sax cal nga Bachir kaay ma yónni la boo ñëwee ma may la 1000 francs Cheikh Umar lalal ma sama lal bi boo paree ma may la 1000 francs lal bi ak mi lal lal bi ak dox yónnent bi ak 1000 francs bi bu jiitu jeex na mooy dige bi dama laa dig te joxaguma la waaye foog nga def li ma la sant nag demal bitik ba ba ñëw ma door a génnee 1000 francs yi jox la lalal lal bi ba mu pare ma door laa jox 1000 francs xam nga lu tax ma wax ñaar yooyu Thierno Bachir moom yónnanti yónni ko ku ko di ku ko rey la yemane te boo lay boo ko yónnee ba mu dem ba ñëw danaan la fay ma <laughs> moom fu lay turandoo bi la yore danaan la fay ma Cheikh Oumar nag moo dàq lal ci àddina moom bu ma lalalee sama lal bi ba pare ni ma ko bëggee la koy defee waaw loolu nag ñoom ñaar ku ma ci dig ne la defal lii dige bi ak def bi bu jiitu dige bi moo jiitu léegi nag moom it bu defee ba noppi ah naa wàccoog sama wax nag te yonent bi xam ngeen ne laa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu tax allamahu shadidul quwa loolu tax de moo tax du waxantu kooku lu mu wax rek def ko keneen nag man nga wax lu la neex te doo ko def waaye yonent bi lañ waxoon sëñ lu Mbàkke radiallahu taala anhu bañ ko ne Mbàkke dégg naa loo wax def ko mu ne loo loo wax def ko yàlla rekk ko man mën waaye man Mbàkke lu ma wax de fas naa yéenee def ko ba ba ma cay télé gis nga mag ñi ni ñu wattandikoo yàlla waaw loo wax def ko kooku moom yàlla rek a ko mën waaye loo wax am yéene def ko nag bu yàlla mottalee baax na bu mottaliwul nga xam ne yéene nga amoon jeex na sëñ kenn du ko dugal waaw kenn du ko dugal moom fu la jaaree yoon moom it ma ne mm, mm, mm. wax def ko yàlla rek a ko mën waaye man Mbàkke day man Fallou day lu ma wax am naa yéene mottali ko te danaa ca taxaw ba ba muy mat gis nga ni ñuy bàyyee xel yàlla ñun dañ ñooy tax man lu ma wax def ko hmm, baax na sama kalaas gi waaye dañ koy tiitaroo man lu ma wax def ko bu dee ñëwee ndax da ko def <laughs> te yàllaay rey yàllaay rey nañ bàyyi xel yu baree baree bari kii mooy Cheikh Seydi Ahmad tiijaan yi joboote ñëpp moo lay won ne mu middu kulli awliya rahmaani lii moo la koy won ndax ñi nga xam ne bokkuñ ci taalibeem yi sax mu dig leen lu ni toll kon kooku joboote na ñëpp moo tax nu mu bëgg taalibeem accepté ñëpp ñim jobootee ñëpp moo tax mu bëgg taalibeem moom Cheikh Seyd Ahmada Tidiane mu mën a accepté ñëpp mën a encaissé lépp parce que moo am lu kenn amut ku am lu kenn amut da ngay mel nu kenn melut loolooy wax bi ku am lu kenn amut dangay mel nu kenn melul ci am na noo xam ne boo ko melee ñëpp bëgg la am na loo xam ne boo ko defee ñëpp topp la soxlawul sangoo saafara soxlawul takki téere waxuma saafara bon na de baax na de waaye Serigne Cheikh nee na bari pexe saf yàlla ku gën bokk ci coow li xam li xew ko gën mën a waaxu xam yoon a ko gën waaw sëriñ Cheikh nee na ma ma inversé ko mën a waaxu xam yoon a ko gën mën a waaxu mu ne xam yoon a ko gën bokk ci coow li nee na xam li xew a ko gën mu ne bari pexe nag safe yàllaa ko gën boo safee yàlla ii saafara dootoo ko sangoo bayre bukki ngay yor foo tur ñu ne mu nga te fekk yoroo lu suukar café loo wax boo génnee ñu ne wu jeexalul dara fekk barki rasul lay dépense bàyyi woo ko kër waaw boo génnee ñu ne jeexalul kii jeexalul dara maa ko xam te billaay xamul la bu xamoon li nga fanaanoo du ne jeexaloo dara <laughs> loolu loolu mooy sag yàlla bu lay sagal yaay def lu tax mu sagal la yaay mel nu tax mu sagal la comportement la sikkar boo gis comportement la awraadu tarixa bi lim soxla yëpp dafa bëgg nga defar sa comportement ba mën a jubóog say mbokk jubóog sa bopp d'abord jubóog say mbokk jubóog say dëkkaale jubóog ñépp te du tee nga am yàlla li Cheikh El Hadj Abdoul Aziz daan wax ne boo nekkee ca bistoron ba te nattu teg la fa sax mu ne fexeel ba jëlee fa yàlla mën naa nekk waaw fexeel nga jëlee fa yàlla waaw donte ca bis torong ba nga nekk nattu teg la fa mu ne fexeel ba jëlee fa yàlla moo tax ca béjjaaw bu rafet ba am na bés ci pom bi mu toog ba mu yàgg rek ni gaa yi kaay leen gunge ma ñu dem ndeket ci ca baar ba la jëm yegg ba góor ba yegg góor gi Moustapha Diop ne ko góor gi waaw looy ut fii fii ku la fi fekk nan góor gi maa ko gis ca buntu baar ba mu ne lu ciy sa yoon man abdu yaxaaf laa yax wala yaxaafuuna lawmata waaw kuy ut yàlla doo ragal ku la ñi fekk mu ngi yor ay ay cinq mille yu bees tàq ay cinq mille ku génn tërëf bëgg a duggaat ci biir i góor gi la borom be jaaw bee fi nekk mu ne kaay kaay kaay kaay nga ñëw mu génnee cinq mille jox la ku tërëf génn rek mu génne cinq mille jox la ñu mujj ñoom ñëpp taxaw ko waaye ñun lii du suñ sagokat dañ bëggoon nga ñaanal ñu génn ci lii du suñ sago dañ bëggoon rek nga ñaanal ñu génn ci waaw ah, ku nekk ngay jeng góor gi ne tàllal leen tàllal mu jàng faatiha jàng ñaanam yu yiw yooyu waaw ah, mutawassilina ilayka bi jaahi afdali wa ahabbi wa aqrabi xalqika ilayka sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabi wa xulafaa'i alladi xassastahu bi liwaai alhamdi wa bi shafaati aluzma an tuallifa bayna qulubina wa tuwaxida kalimatana wa tusawiya sufufana wa taftaxu lana abwaaba alarzaqi wa tutiilu aamaarana ala alhidaayati wal istiqaamati wa tamassuki bilkitaabi wa sunnati wa an taxrusa mahabbata kulli waxidin minna fi qalbi axihi bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaayi wa bi xaqi ibnihi wa mahbubihi wa aminihi waarisi sirrihi alqutbi almaktum abil abbas maulana cheikh sidi ahmad atijaani radiallahu taala an dal di tufli ñu génn mu dugg ci oto bi ne ku lekk sama 5000 bàyyi sàngara in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.